سعد اللساني نوير جناني صفي عمل وزير براه بارك امام شيخ ابراهيم فال السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوكي جولي مبوكي طالبي مبوكي باخو ساسونه دي آه، توب سين تلفزيون لام فال آه، سين ايميشن جيزبول موريت دي جوتاي بي نديغلال مام شيخ ابراهيم فال نيم لين دي زياخ بو باخ باخ تامبالي سي زياخ بي اكا نيانال شيخ محمد المنتقى مبكي مي توك جوتاي شيخ الخديم سونو بروم ياغال كو فلول تماندك وير di ziar ak a ñaanal Serigne Amdi Fall moom moo du Mbenda Fall mu toog jotaay maam Cheikh Ibrahima Fall sunu borom yàggal ko fi loolu te maan ak wér di ziar ak ñaanal Serigne Cheikh Ngunda di sunu yaakaar tey ak di ñaanal sunu borom sunu borom kattanal ko ba li mu am yéene liggéeyal Cheikh Ibrahima sunu borom kattanal ko mu defee kon nu ko jotam te ànd ak mbokki taalibe yi kon dellu si si jotaay bi am mbégte lool tey jàkkaarlook sunu sëriñ di sunu jëwriñ. Euh, di euh, kii sëriñ bi doyloo jox ko kàdduk euh, yoon gi yoonuk yoonuk kàdduk waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall di sëriñ Dame Fall Soda di ko ziyaar bu baax a baax tey mu cëral émission Jazboul Mouride ngir ñëw fii ñu mën a waxtaanee kon lu yaatu rek rawatina nag kon liggéey yu mag yi nga xamante ni sëriñ bi jamono jii. mu ngi koy ànd ak jëwriñam ba di Serigne Mountakha Mbacké yàlla nañ fi bokk yàgg lool te ànd ak wér eh, ca xam ngeen ni bi si mujj rek eh, te nekk si jamono ji wala bi nga xamante ni sax jamono ji si lañ nekk lool di complexe islamique eh, bu nekk ci ancien stade bu Mbacké bi institut islamique boobee nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moo koy liggéeyloo Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda Fall gannaaw bi ko magam ju baax ja Serigne Cheikh Jëmb Fall yàlla na fi yàlla na suñu borom dolli ngërëmam gannaaw bu mu ko tàmbalee sëriñ Amdi Fall euh, mu sëriñ Modou Mbend taxaw temm ngir àggale ko ngir jébbal ko sëriñ bi yàlla na ko mottali ba sëriñ bi jox ko yeneenu naal te nu ànd ko mu jébbal ko ko sëriñ Mamadou Ndaw Baye faal ñu ngi lay ziar bu baax a baax moon la lool Fall wax dëgg yàlla te di la ziar si jotaay bi nga xamante ni tey borom jotaay bi moo ñëw si jotaay bi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi ziar bu baax sunu yaakaar Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te waaye lépp lu mu naalal Serigne Touba yàlla na ko yeggale bu sumb yeneen i naal te nun mur yëpp naan ko ak moom di ko ñaanal baax Serigne Amdi Fall Moodu Mbend bi fi mu wutu maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér lépp lu mu naalal maamam maam Cheikh Ibrahima mu yeggale ko bu sumb yeneen i naal te nun mur yëpp naan ko ak moom di ziar mboolem njabootu Serigne tubaa gi ak mboolem seex yi Serigne Touba yëpp boo dem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp di leen ziar bu baax a baax waaye di santaat bu baax ni nga ko waxee sëñ Alioune Badara dellusiwaat ci jotaay bi ñu àndaat ko hmm. comme nañ ko daa defee saa su nekk talaata bu jot ci waxtu bi waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall euh, xam màggal gi ñu génn tey nag euh, doon jotaay bi nga xam ne gannaaw màggal euh, ndigal li ñu ci am mooy waxtaane liggéey bu tedd boobu hmm. jëmm ju tedd jii nag tey ñëw ci jotaay bi duñ na guleet boroom jotaay bi ñëw ci jotaayam defe naa ne 2014 ba tey. ba jotaay bi tàmbalee ñu ngi koy ànd ak moom. naka njëkk saa boo xamante ni bii télévision am Fall bàyyi ko ne woon fii dem Touba ci bépp xew-xew boo xam ne yoonu murit woote na ko rawatina liggéey boo xam maam Cheikh Ibrahima Fall mi ngi koy liggéey suñ masaani dikk ki fi nekkal maam Cheikh Ibra euh, dem ci ki nga xamante ni bii mooy Serigne Cheikh jëm ba jóge fa. jàll ci sëriñam di daf naa nu nañ ñu wool sëñ Dame Soda. bu dikkee mu daal yëkkati kàddu ay kaddu naka jekk loolu ca ndog yaag ci yóbbu tabaski yeeg lu ma sa xew ci yoon wi rek defe naa ba tey sax fekk nañ ko fa ci liggéey bi nga xam ni doon nañ ko doon na ko liggéeyal ku tedd ki sëñ njabootu sëñ sëriñ Cheikh Mbacke kon loolu day wane ne jotaay bi lu yàgg la borom jotaay bi tey nag sëñ bi delloo si waat ko ci jotaay bi ngir rek liggéey bi nga xamante ne bii boobaak léegi sëriñ baa ngi ci yi ñu toll nag mel ne ñu ngi ci cat li sëriñ bi waxoon ko tey mu ci jotaay bi ngir waxtaani liggey bu tedd bobu serigne dam mi nak ngir fatali ñiy seetaan ne doomi serigne bi la ndax way juróom bu baax wa serigne Cheikh Modou Mbenda mo ñeek wutu serigne Modou Mbenda di yalla dogal mu jóge fi njabot gi tàmbale ko serigne tala ba tay ji señam di dis di serigne Modou Mbenda di mam Cheikh Ibrahima Fall naka jek nak bi sëñ am di nekké Cheikh Ibrahima tay manam dama nan bam nekké nekkee Modou Mbenda ba la wax daa topp mboolem ay magam waaye topp mboolem ay waajuram yàlla dogal na sëñ di doyloo ko ci lépp jox ko kàddoom loolu lu yàgg la ba tey jii muy Cheikh Ibra mu dénk ko kàddoom lépp lu sëriñ bi wax lu mbaa mu koy deflu danaan wóor leen ma sëñ daam fépp fu muy yónnee mbaa fu muy yàble danaan wóor leen ma sëñ daam tey nag sëñ daam moo ñëw ci jotaay bi ngir fas yéene waxtaanee fa liggéeyu sëriñ bu toll kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax di santaat maam Cheikh Ibra Fall mi ñuy di ñaan serigne am di Fall mu yagg fi lol te wér waaye ñaanal ko sun borom baye ko mu yagg fi lol te wér di santam bu baax serigne dam noonu rek lañ ko doon dalale jërëjëf su ngir ñi sétan xam jotay borom mu ñëw ci jotay bi tay mhm. <laughs> jërëjëf euh, serigne mamo Ndaw Baye Fall mhm. euh, leer na nañ mhm. kon serigne dam Fall euh, da ñu koy ziar bu baax baax sëñ bi di la wax alaykum di la dalal si kër gi nga xamante sa kër la jotay bi tay borom kon ñu ngi lay dalal bu baax baax Fall Yaaram jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, sëñ Alioune Badara ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, di nuyu Serigne Mamour di leen siyaare bu baax euh, di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaleykum salaam di tàmbalee sunuy kàddu ci di sant Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne moo nu si boole mhm. di jotali am nuyo bo xamantene mi ngi bayiko ko si di di sëriñam di fallum sëriñ Modou Mbenda dem ci mbollem murit yi kenn ku ne xamne ne bi mom ñaari ñaari tektal rek lam muy sëñ touba khadim rasoul ak murit yi nga xamne ñoko top and ak mom fofu rek la ab doxam jëm kon ñi ngi leen di nuyu euh, di euh, siaré Cheikh Modou di ñaan yalla suñu borom yagal ak dundam ak wëram nga mom moy mbegum mooy mbégum yoon wi eh, ak njabootu seigne touba gi yëpp mu ngi len di siyaare mm-hmm. waye di siyaare njabootu mam siyaare Faal gi mm-hmm. bu nu ko waxé rek dañuy tudd ñëpp rek buntu kër bayyi wuñu kenn dale si kër Cheikh mohamed Moussa mi nga xam moko moo wutu ba ci kër Serigne Ngunda Debbo mi nga xam mo doon am ciatam ñëpp ñu di len siyaare goor ñi ak jigéen ñi di ñaanal Serigne Amdi Fall yàlla yàggal ak dundam ak wéram ndax moom ab liggéeyam kenn ku ne xam na ab taxawaayam si yoon wi li ko suñ borom jagleel euh, kenn ku ne gis na ko kenn ku ne xam na ko muy tawféex goo xam ne euh, mooy yoon wi rek ndax ak Baye Fall moom moom mooy liggéeyal sëriñ bi rek moom nag li ko suñ borom jagleel kenn ku ne xam na ni yaatu na yaatu goo xam ne waxtaane ko si ab jataay sax yombul xañ na dañ siy cof rek ni ngeen ko waxee ñu fasiyene waxtane waxtaane lenn si li nga xamne ay liggey la yo xamne serigne bi eh, jot ndigal li si jëwriñam ji Cheikh Modou Mountakha and ko njabootuk Cheikh Rafal gep ak talib bi rek ba mu ex fi ñu am ndigalul ñew am luñ si leral tuuti rek di sante bu baax di ñaan ñu tab si ak jamm te lepp luñ ci sentu muy ngeerum yalla nañu ko suñu borom defal amiin def jere jef Fall Yaram di di di beg lol niñ ko waxe rek kon mbokk yi fas yéene kon euh, waxtaanee yoon wi niñ ko baaxoo defee saa su ne talaata bu jot rek si waxtu wi euh, gannaaw bi ñu ndokkalee nag mboolem mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ci euh, sëñ Mamour xew-xew bu màgg bi nga xamante ni moom la ñu jugee di màggalu Touba yàlla nañ ko yàgg ànd te xam ngeen ni njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ni koy waxee saa su ne am si taxawaay bu bu bu am solo. Euh, ci addiye yeeg ci lépp loo xamante ne mooy jagal euh, bis bi waaye te xam ngeen ni tey jii si talaata gi yamoo ak euh, ñetti fan ci weerub septembre lañ doon séntu weerub gàmm wi si atub junni ak ñeent téeméer rek ñeent fukk ak juróom benn di 1446 mu mel ni weer wi dafa kaamil ëllëg ak jàmm si àllarba gi euh, mooy fanweeri fan yi di alxames incha allah euh, ci euh, juróomi fan yi 5 septembre boobee nga xam day tombeek sax màggaluk ndar gi ñaari rakkee ndar yi mooy doon benn fanu gàmm kon gàmm gi nag incha allah ñu jàpp ko dibéer dimanche. 15 euh, septembre incha allah yàlla nañ si àgg ak jàmm mhm. bu ñu si jógee xam ngeen ni euh, fàttaliku ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall danañ si ñëw incha allah ci kanam te gàmm googee xam ngeen ni waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall euh, foofu sax la ñuy ubbee mhm. mel na ni Thiès la ñuy gàmmoo mu doon taarix bu yaatu. Mhm. waaw loolu moom taarix la sëñ ndax sëriñ bi moom bi mu agsee dafa fekkoon ñu ko jiitu ñëpp tàmbali sa wajuram yu baax ya gàmm gi bu masaa jub si rek ñu am ndigalul taxawu ko Thiès foofu si Madina Fall kër Cheikh ibrahim nga xamne beurep la bo xamne bi euh beurep bu am tarikh la euh, yu bare bari xew fa euh, am ñen ño xamne fa lañ fene sax jamono ci jabatu mam Cheikh ibrahim Fall muy beurep bu bari ay mbot mm, la taxone Cheikh Ibra dem fa waxtane nañ ko si jotaay yi ba tay lolu xam nañ ko da doon gàttandu ji euh, murit yi nga xamne ño doon joge sowu jant si ndigalu sëñ Touba ndax Cheikh Ibra danaa def euh, fépp fu mu yaakaar ni ñi jël sëñ Touba yóbbu ko mën nañ ko fa jaarale ji rek wala nu awale ko fa mu dem fa saytu fa bërëb boo xam ne bii bu fa sëñ Touba wàccee dana am fu mu mën a nekk fu sell foo xam ne dana fa mën a jaamu yàlla kon bërëb boobu bërëbu jaamu yàlla moo taxoon Cheikh euh, saytu ko ak bërëbu liggéey euh, njabootu Cheikh Ibra Fall gi nag naka jëkk am ndigalul di fa taxawu gàmm gi bi nga xam ne yàlla dogal na Serigne Cheikh jëmb yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla suñu borom soppi na uh, ab liggéeyam uh, Serigne Amdi Fall dafa wax ni ndigal li fa mu newoon rek fa lañ koy delloo uh, Cheikh Modou Mountakha jox ko ndigal mu wéyal liggéey boobu foofu si Thiès yaakaar naa at yëpp noo koy ànd taxawu ko ni nga xam ne noonu la ko magam yu baax ya ak wajëru yu baax ya daa taxawoo incha allah ren jii ndigal loolu la joxewaat it wax na ni ñi ku yaakaar Cheikh Fall na ko fekk cees incha allahu fa lañ fas yéenee gàmmoo. incha allah euh, dundal fa guddi googu nga xam ne euh, guddi ko ku yàlla bind moo tax mu bind la. Mhm. Euh, ñu fas yéene faa dem dundalaat ko nan ko daa dundalee rek. alhamdulilah si jàng alxuraan tudd yàlla si kar. Mhm. ak bernde rek. inshallah jere jërëjëf fal nga seigne mawour goudi guddi mom dañ nañ ko wajjal jotay spécial dañ doon ubbee non rek mm-hmm. ndax comme tay mm-hmm. lañ doon sentu weer wi mm-hmm. mu melni gannaaw suba si alhamis ñu ko waxee moy benn fanu gam mo taxoon rek ñu ko doon ubbee waye inshallah jotay yi di mom seigne mawour dañ nañ ci and gën ka mëna yaatal gam gogé ak euh, mam Cheikh Ibra fal ak ak jabotam nañ leen daan bu soowé suñu borom ni ko waxee fal sank nga xamante ni euh, sëñ Amdi Fall moom Sëriñ Modou Euh, ndigalu cheikh Mouhamadul Mountakha képp lay déglu. Mm-hmm. waaye saa su ne it ndigalu cheikh Mouhamadul Mountakha. Mm-hmm. mu ngi rot si jëmmam ji. Mm-hmm. mu koy mu koy mu koy taxawu. li nga xamante ni moom la waree. na nga xamante ni moom la ñu ko ñu ko jiitu woon doon doon doon taxawoo. benn si ndigal li. dinañ ko junjee sànq institut islamique bu Mbakke. buñ ko waxee nag muy. stade ba woon ba Mbakke. ca Mbakke Bawol. Cheikh Mouhamadul Muntaka lii kat dafa bëgg ñu def ko barabub jaamukaay yàlla waaye mm-hmm. barabub sàkku xam-xam mm-hmm. teg ko si loxol Serigne Cheikh Jëmb faal mm-hmm. ba nu mu agsee tey jii si loxol Serigne Amdi mu moom moo Modou Mbenda Fall yittem lépp mooy liggéeyal Cheikh Mouhamadul Muntaka Mbacké di Cheikhul Khadim waaye euh, fi mu ne nii yittem gépp jëmale na ko si barab bi euh, mel na ni barab bi fi mu ne nii euh, sori na lool nan nga nu koy ubbilee fan la tool waaw loolu de xanaa dañuy dollee sant rek mm, di ñaanal jàmm suñu jàmbar ja sëriñ Cheikh Fall jëmb yàlla suñu borom dolli ko yërmande eh, yokk ay leeram te taas ñu si barkeem yàlla dogal na kenn ku ne xam na ni liggéey boobu moom si moom la yàlla dogaloon mu doore fa moom mu tàmbali woon ko taxaw ko taxawaay boo xam ne bii ku fa ñëw danga xam ne lii eh, méngoo naag liggéey boo xam ne bii kër Cheikh Rafa la koy liggéey di ko liggéeyal kër sëñ Touba ndax euh, liggéey ba demee na noo xam ne euh, fii ba dinay tukki man jàpp naa ni batiment yañ fa def yaakaar naa dara mënu koo dara mënu koo daaneel dara mënu koo màbb loolaat la si lañ ci jublu mooy Cheikh Rafal daa wax ne sëñ tubaa moo am li kon dañ koy defal li gën te la nga xam ne moom la Cheikh Rafal digge woon ak sëñ mooy waxoon ko ne ko féeteel ak yàlla ma féete ak yow féete gi muy féete moom nag moy bëpp ndigal bo xam ne na ci mom mom seigne touba khadim rasoul ñew kër cheikh rafal cheikh rafal da koy jëfé ni nga xam lako seigne touba sëñ Tuubaa ni seigne modem te da wax rek muy net ni seigne blat ba koy wax ne ko suñu yari kër yi mbañ yi ñu am mu ne kër seigne touba liñ mbañam moy wara joxe ndigal te joxe woko waye kër seen mbañ moy jot ndigal lu jógee kër seigne touba diko delo te jëfé ko moy sababu ndigal lu rot ak numu mel fas nañ ko yéenee jëfe waaye nag duñ ko jëfé rek si ni dañ koy jëfé si anam ya gëna wër anam ya gëna rafet bo démé sa complexe bobu di nga gis ni man nga ko romb rek di jall waaye bo duggé ci biir ba gis liggéey ba namu démé da nga xamné li euh, Cheikh Rafal rek la mëna doon ndax lepp lo xamné luñu lu def ben la dañ ko ful ba mu mat fukk mbaa mu mat ñaar fukk lepp ngir bëgg mu mel no xamné waxtu wu sottee ni Serigne Touba bëgg mu melni ni dana ni mel ku mm-hmm. ne xamna ni juma ji ban koy tabax mourid mm-hmm. uh, uh, yi nga xamne ño demone doon wuti carrière mm-hmm. ak ñi nga xamne ño fi nekkon diko saytu bu fekkon ni wu nok lola kon ba légui amna lu sik ci juma ji waye do gis mukk lu si sik lolé nak moy mo wacc si ci liggéey bëpp liggéey bo xamne ne uh, liggéey bu kër Cheikh rafal di jëf di liggéeyal kër serigne Touba bi Serigne Cheikh Fall jëmb liggéeyee bâtiment yi bu mu ag mu nekk ñetti bâtiment yo xamanteni bu nu bu nu waxee ñett day ñetti rangé rek waye bâtiment yi day bâtiment yo xam dayo bi euh na jégg ndax euh, bâtiment bu ci né mi ngi guddé juroom ñaar fukki mètre. xamna technicien bi sax bu ko di illustrer walel dina ci am solo. waaw mhm. waaw bâtiment bu ci né juroom ñaar fukki mètre la la nyar muy agnyar. mètres ñaar fukki mètre ak ñaar. boo xoolee bâtiment yi surface su bâtiment yi nekk na mille cinq cent quarante mètres carrés bâtiment bu ne fa mu nekk mille cinq cent quarante mètres la si kaw si kaw loolu lañ ko tabax boo xoolee bâtiment yi benn bu si nekk am na lu mat fukki salle ak juróom-benn yoo xam ne salle bu si nekk juróom-ñeenti mètre la yaatoo la guddee yaatoo juróom-benn mètre fukki salle ak juróom-benn loolu surface boobu. salle bu ne dafa dem cinquante quatre mètres carrés bu ne am na lu mat euh, ñeenti néeg yoo xam ne benn bu ne moom it guddee na euh, juróom-benn mètre yaatoo ñeenti mètre kon loolu doon loo xam ne euh, li nga xam ne moo taxoon Cheikh Modou Mountakha sant ko Serigne Cheikh Fall jëmb te yeesal ndigal li si sëriñam di Fall ndax bëggoon mu doon bërëb yoo xam ne ni mu ni ko xam-xam ñore moom Cheikh Modou Mountakha kenn ku ne gis na université bi mag bi Euh, ni ko ni ko ndaw yi ñore mu bëggoon foo xamante ni fii fu wóor fu yaatu foo xamante ni fii dina fa mën a saytu loolu nga xam ne yitteem la euh, ñu yàgg koo xam ak moom muy xam-xam sàkk ko ak ak yaatal ko rawatina si ndaw ñi nga xam ne ñoom ñooy yaakaari ëllëg kon loolu bâtiment yooyu boo ko xoolee benn bu si nekk noonu la toll yàlla dogal euh, bi nga mbaa bâtiment bu ne am na ñaari mbaar yu ko yu ko yu ko uuf mbaar yi juróom-benni mbaar la mbaar mu ne boo ko xoolee yaatoo na ñaar fukki mètre ak ñaar guddi na ñaar fukki mètre ak ñaar yaatoo fukki mètre ak juróom-ñaar donc vingt deux vingt sur dix sept mu nekk trois cent mètres carrés mbaar mu ne trois cent mètres carrés boo boolee juróom-benni mbaar yi mu nekk mille huit cent mètres carrés kon loolu day liggéey boo xamante ni bii euh, ba nu koy saytoo ña fa newoon doon ko liggéey gis nañ ni sàmmonte nañoo mbooleem luy àqi ab liggéey rawatina liggéey bu jëm si bâtiment fondation yi boo xoolee li nu ko gas si suuf mm, euh, boo xoolee lu ku ku ku tolloog ñaari mètre wala ñaari mètre ak genn wàll soo duggee si biir boo yëkkatee say loxo doo toll na ni bâtiment xanaa daanaka bâtiment bâtiment ci suuf bâtiment ci kaw li ci suuf lépp it dañ koo kuule muy beton maanaam chaise bi dañ koo daajal chaise boo defal chaise boo xamante ne bii lu jamono yàgg-yàgg lu jamono yëngutu yëngutu yëngu bâtiment yooyu moom dara du si doo gis miir bu fet doo gis fu rës doo gis briques yu taqale ko mhm. kon euh, liggéey briques yéet day doon dafa doonoon euh, liggéey boo xamante ni bii maanaam euh, boo jëloon tey ji pont bëgg koo daaj si brique si miir bi du sotti mhm. bi nga xam ne bi ñuy installé câble courant yi sax gis nga ñoom ay ay mël électrique lañ yoroon te dañoo amoon difficulté pour xar pour waxtu bu ñu waree xar fenn dañuy am difficulté. mooy wanee liggéey bu wër lañ ko liggéey mooy wane ne liggéey bu wër njëkkee. waaw waaw bi di fàttali ne stade la. stade la xam na ni mur bi. mur bu bu bu bu yaatu bi moom stade la woon. waaw yàlla dogal fi mu nekk kenn ku ne xam na ni eh, boo doxee tuuti rek dañuy wax ni foofu la ko tedd ki feeñewoon jamono. yaakaar naa jamono yi sax sëriñ baa ngi koy taxawu mu mel ne ña ngi koy defar. Euh, muy bërëb boo xamante ni biit euh, li nga xam ne moo ko séq euh, di armée li Musoobe yi ak ak foofu ñuy wax ni Mbàkke xewar ak li ko wër yëpp ay bërëb la yoo xam ne bërëb la yoo xam ne buñ fa do buñ fa buñ delloo si taarix bërëb la yoo xam ne Serigne tubaa am na am na am na am na jaar-jaar yoo xam ne am na ko fa kon muy bërëb boo xam ne yellutoon si doon bërëbu bu powukaay looloo doon sababu sëriñ bi saytu ko ba nu teg ko si loxoom ban ko ci tege nak serigne bi japp len lu def ko bëre bu jangu kay bo xamanteni bi euh, daara daara lay doon jo xamne euh, lu jëm ci walu alquran ak xam xam wax nañ ni ña nga xamne ño fa nar dem munu genné fofu ci université ba lañuy dem directement kon bëreub bobu bëreub lu bo xamanteni bi ku set fa mu bayiko ak fi mu exi tay di nga xamne lepp luñ fa def rek yello nako hmm. muy bo xamne bi yalla dogalé mu accès ci loxoy serigne amdi fall te fekk Serigne Cheikh jëmb tàmbali woon ko dem ba sori si lool am Amdi dafa daal di defaat yitteem yëpp si fa Serigne Cheikh jëmb bàyyee woon rek mu tàmbalee fa fas yéene liggéey bi mu àgg ba mel ni nga xam ne noonu la ko Serigne bëgge woon. moo tax mësta ménager effort. mësta mësta denc dara lépp lu mu am def na ko si liggéey boobu. waaye nag ànd na kook mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ko seqal mu njabootu maam Cheikh Fall. tey jii boo duggee sa biir daara ja Deng fa fekk dalu wayu kep ko xamni ki bok na ci njabatuk maam Cheikh Rafal dalé keur seigne Modou Moussa keur seigne Mor keur kër Chérif Assane kër sëñ Ali Fall Mbor keur seigne sakour keur seigne Mbacke Fall ah, keur seigne Ngunda Fall euh, fo ñep ñom ñep ba ci daru xefor kenn ku ne am nga fa dal bo xamni bi euh, ka nga xamni moy jeuwriñ ja ak njabotam bu nu xëy fala juy nek di taxawu liggey bi ba wacc jot nu wacc kenn ku ne wat bu nu xëyee nekkaat nonu noonu la bi wote ba mu koy ba mu siy soobu dafa santane nu wo mbollem ñi nga xamni ñom lako sekkal mu njabatu mam Cheikh Rafal ñom ñepp nu and wuy si ko ci ko sayir wuy ci ko si and ak mom ci lepp and ak mom ci bëgg gi mu am si liggey bi nu fasiyene fam fa serigne bi bëgg mu ag fa mu ag fa si taxaway bi ak japp gi ak son ak ak choono yi ak jëf ji kenn ku ne di jëf di indi sa addiya di ko joxe sëriñ bi di la ko si defal ñu àndandoo ko ba liggéey bi fa mu toll um mësta ump kenn liggéey boobee nag kenn ku ne xam na ni fii mu ne fii mu toll ndax dem nañ ba euh, àgg si cat li euh, bu nu ko xoolee bi nuy jub koor gi te sëriñ bi joxe ndigalul nu taxawandi ngir dem taxawu ndigal sëñ Tuubaa loolu mm. dafa am ñoo xam ne da leen a tànnoon wax leen ñoom nan fa des mhm. muy waa alali maam Cheikh Ibrahima Fall euh, si njiitu sëriñ Omar Seck ñu koy nuyu te di ko siyaare bu baax a baax mhm. sëriñ bi sant ko ne ko mhm. moom gannaaw dañoo toll si finition booba ñu ngi toll si karo yi karo yi ak peinture ak wàllu électricité ak wàllu plomberie sëriñ bi wax ne ko yëngu bi muy yëngu na ko joyal jëmale ko foofa nga xam ne ñi na bàyyi ñi nekkal ko fii si ndogo yi te moom moom ñi mu àndal ñoom seen seen seen yëngu bépp ñu jëmee ko si foofee nga xam ne mooy mm-hmm. liggéey sëñ Tuubaa boobee di daara ja mm-hmm. loola mooy sababu moom it ba ko sëriñ bi joxee ndigal mm-hmm. moom it mu daal di sóobu sa ndigal loolee rek def si pëstif boo xamante ni bi pëstif bu mat sëkk la li dale si euh, karo yi mu doon loo xam ne euh, liggéey bu yaatu la woon mm, bu rëy rëy ndax euh, surface boo xoolee surface yi mille quatre cent soixante-dix mètres carrés modon doon. dañ moo doon carrelé. moo 1470 m2 par bâtiment. par bâtiment. bâtiment bu ne 1470 m2 la woon. macha allah boo ko boolee 4410 m2 nañ tan si kay ak karo. Hmm. karo karo sol. li nga xamné mom lañ def ci souf bo xolé karo faïence yi. li nga xamné moy tafé ci mur bi. Hmm. Hmm. loolu nek na 386 m2 nga multiplier ko par 3. mu jox la 1151 m2 yo xamanteni Omar Seck sëñ Omar Seck alal imaam Cheikh Fall ci moo ñi mu àndal ñoo taxawu liggéey boobu yi góor la ko ba mu àgg góor la lool mu dolli ko si mm-hmm. mu jëm si wàllu peinture mm-hmm. bu ñu xoolee bâtiment yi ni mu toll mm-hmm. ak mbaar yi kenn ku ne ku fa dem di nga gis ni mboolem lu fa jara peinture peinture ba mu daj image yaa ngi nii ngay seen ñu dem si wàllu électricité bi ni ma ko waxee woon bâtiment yi xam nga bâtiment boo xam ne soixante-dix mètres la guddee yaatoo vingt-deux Euh, nek 16 pièces wala 20 pièces. bâtiment bu na pièces ndax na 16 salles yo xamné yu maga mag la. ak chambre chambre yu yu la mètres sur 4 la. yooyu yep ñu ko installer def def ci li nga xamné mo war installé walu courant. mu doonoon lo bu la. Euh, prises courant. 429 prises courant dem quatre cent vingt neuf prise courant dem na fa si contact quatre cent quarante euh, benn contact dem na fa lampe led yi six cent vingt sept lampe mhm. ventilateurs yi saal bâtiment bu ne am na juróom fukki ventilateur mu nekk téeméeri ventilateur ak juróom fukk. te yëpp alali Cheikh Ibrahima lépp alali Cheikh <laughs> yi nga xam ne mhm. euh, moom lañ doon tudd mhm. euh, te ak yi muy àndal yëpp ah. doon na trois cent quatre vingt yoo xamante ni yëpp euh, sëñ Omar Seck ak alali maam Cheikh Fall installé nañ def nañ ko si bâtiment bi. mais euh, sëñ bi budget budget la de. waaw xam nga budget la waaye Cheikh Fall boo koy liggéeyal. Mm-hmm. moom doo doo doo doo doo doo wàññi doo compté. doo compté waaw ndax mm-hmm. boo xoolee li lim la defal. Mm-hmm. yow boo koy jëfal. da ngay am gàcce. ndax lim la defal mënuñu koo fay. lu nu mënalul suñu bopp te mënuñu koo ñàkk. moom la nu Cheikh Fall defal. moo tax alal imaam Cheikh Ibra mhm. si njiitul Serigne Omar Seck général mhm. euh, li nuy jëf mhm. euh, duñ ci duñ ko geesu ndax jëf ji ma tudd bokkul ak ndigal lu fi jaar lu ne la leen sa war def nañ ko boo xoolee sa koor ga bañ leen di yabal ñu dem sa liggéey boobu terewut fàggu nañ ay nag yu bari andi jox ko sëriñ bi ban waree andi nañ seen addiyee kor yi tabaski bañ sa àggee kenn ku ne gis na lañ fa indi si ay ay xari tabaski liggéeyu bi liggéeyu sikkar bisi sikkar yi nga xam ne sëriñ bi digle woon na ko ba si bisum njaareem bii nga xam ne moom lañ demoon bis bu si ne waxtu wu ne funtu toll sëriñ bi dana ko sant mu togg ay jam yoo xam ne yu murite la yóbbu jox ko njaboot gi taalib yi nga xam ne ñooy taxaw liggéey boobee. ci mbale mi ci mbale mi mbale mi biñ ci tolloot gis ngeen ko taxawaay bi bis bu yàlla sàkk sëriñ bi da koo diggaloon ne ko na nay togg ay ñam ku kuy euh, buntu kër Cheikh Rafal bu ne na fa wàccee na na fay wàcce ay ñam bis bu yàlla sàkk ba ba mbale mi di àgg te noonu la ko defee ba mu àgg ànd ko alal imaam Cheikh Ibrahima Fall ñu ne si biir réew mi ak si bitim réew kon kooku ak jàmbaar la ba si màggal gii mm-hmm. bi màggal gi dëgmalee noonu la defet nam daa def si wàllu si màggal si diggante nag ak giléem taxawaay bu mel noonu it la am def ko si liggéey bi te mi ngi waajaatit si gàmm gi nga xam ne moom la ñu dëgmal incha allahu bi nga xamante ni biit euh, màggal nañ te nga xam ne mun saa màggal bu nuppi rek sëriñ bi da ko daa jox ndigal mu dem cees ngir waajali kër ga ya nga xam ne si moo fa moo fa moo fa war a moo fa war a dolliku bi mu bi mu ñëw bi ko sëñ bi wooloo ba mu ñëw sëñ bi da koo jox ndigal ne ko daa bëggoon moom mu desaat mu des mu wéy di des yi nga xam ne si liggéey bi la ndax boo xoolee miir bu mag bi nga xam ne moo moo wër mhm. bërëb bi mhm. euh, da sëñ bi dafa digle woon nu suy ko biir mhm. biir ak biti Euh, loola doonoon loo loo xam ne lu yaatu la loo xam ne mm-hmm. waaye sëriñ bi defal ko si tawféex mm-hmm. euh, mu am koo xamante ni kii wax na saak moom bañ am sa déggoo mm-hmm. ba kooka àggal na biir ga ba song biti bi te moom day boole finition ak di ko di ko suy incha allahu am na yaakaar si ne balaa gàmm incha allahu loola moom lépp dana àgg diggante beet xam ngeen ne sëkk bi jaar na fi sëkk bi jaan na fi. lu mat juróomi téeméeri camion camion suuf. Euh, wàcc nañ ko fa. Mm-hmm. si njiitul sëriñ Moussa Fall Mbar. Mm-hmm. muy sëriñ Moussa Fall mm-hmm. euh, taxawaay bu mu am. si liggéey bi. mu ne su tudd liggéey boobu te tudd ñu sëriñ Fallou Fall. ñun sëriñ mu ne su la tudd liggéey ba. te tudd ñu sëriñ Moussa Fall. ñun sëriñ Modou Fallou Fall. ci su ñu leen tuddee nag. dafay mel ne. dañuy dañuy eh, taxawaay bi nu am. si di taawu kër Cheikh Ibrahima Fall. Mm-hmm. ndax ñoom mm, sëñ Fallu moom ni ko sëñ Moussa di waxee rek. Mm-hmm. kër yëpp moo fay taaw. Mm-hmm. njabootu Cheikh Ibrahima géppit mooy mooy seen jëwriñ. ndax moo moo moo jiitu si seenu moo jiitu si seenu njaboot. waaye taxaw taxawaay bu mat sëkk mooy taxawal ay wajuram. nga xam ne jàppe bu leen wajur ay ay sëriñ la leen jàppe def leen ay sëriñ def leen ay kilifa. xam ne liggéey bi kenn waru ko faa jiitu waaye kenn waru ko faa mujj mm-hmm. moo tax mbaaram ma boo fa xëysee mm-hmm. loo teel teel da ko fa fekk mm-hmm. te bu bo boo loo teel teel a guddee guddee demit da nga ko fa bàyyi taxawaay bu ma sëkk boo xam ne euh, la ko la ko la ko laytaay bokk na si lépp lu fa ñëw rek def nañ ko si liggéey bi ci ndax bu ma limee léegi buntu kër maam Cheikh Rafaali nun euh, ñu nekk si wetu sëriñ bi te xam liggéey ba na muy demee dañuy gis ni ñoom ñëpp kenn ku si nekk mhm. taxawaay ba nga sa am mu ne su ko xayma ci dale si kër Cheikh Serif Azan Fall mhm. sëriñ Amdi Xadi sëriñ Cheikh Fall Mbawor mhm. sëriñ Abdou Roqee Fall jàmbar jooju sëriñ Fallum sëriñ Abdou Sakkoor hmm? sëriñ Asan Fall mais Daaru Xafoor dégg nga boo ko boo ko tuddee sëñ Taala moom sëñ Ablaye Fall Ndar <laughs> dégg nga da ngay gis ni ñoom dafay mel ni kenn ku si nekk mhm. yaa ëpp yaa da ngay jàpp ni sax kooku moo ëpp yitte mhm. wala moo ëpp yéene sëriñ bi si liggéey bi nga xam ne sëriñ Cheikh Thioky sëriñ Cheikh Thioky kenn ku ne xam ne day ñëw xëy toog mhm. tegal ko ba nga mu toog wallaay di xool lépp lu jar a jubbanti mu jubbanti ko lépp lu si war def mu def ko si kon taxawaay yooyu taxawaay yu mat sëkk yoo xam ne li sëriñ bi wax ne yenn bi euh, diisul ndax ñi nga xam ne ñoom la ko siqal dañ ko koo taawul moo tax agsiwul fi moom Mhm. moo tax ndigal yi fi mas a jaar rek mhm. rawatina ndigal lii mhm. eh, daanaka li muy yaatu yaatu yaatu woyof na toyy si moom mm-hmm. ndax fa mu bëgg sëriñ bi yób yóbbu ko fa mm-hmm. kenn ku ne gis na ni liggéey bu yóbbu nañ ko foofa muy mm-hmm. liggéey bu sell liggéey bu wër liggéey bu mat sëkk sëriñ bi di sant mbooleem am maam Cheikh Rafal mbooleem ñi mu ko bokkal mu leen di sant te leen ñaanal ni mu ko baaxoo def rek day dem ba wax ne cant gi moom lott na si ndax ni ñu ko taxawoo ak ni ñu ko jàppalee ak li ñu nekkee si wetam ak ni ñu àndee ak moom ndigal yi nga xam ne mooy jógee kër sañ Touba di agsi fi moom. Mhm. moom loola dafa rëy fi moom ba wax na ni moom lott na si sant leen. Mhm. waaye da leen di ñaanal ci seen barkeem maam. Mhm. suñu borom taxawu leen. suñu borom kàttanal leen te wéral leen suñ borom yokk seenu man lii seen yéene si seen kër maam suñu borom defal leen ko. barkeel Serigne Cheikh Ngounda Fall. jàmbaar jàmbaar joo xamante ni bii. Mm-hmm. Mm-hmm. fu sëriñ bi ne mi ngi si wetam. taxawaay boo xamante ni bii. Mm-hmm. taxawaay bu mat sëkk la. waxtu bu fi moom rek. nga xam ni sëriñ Cheikh Fall Ngounda accès na. loolu ñun ñëpp ku xool da ko gis. ku làmb da nga ko daj. taxawaay boobu euh, kenn ku ne gis na ko si wetam. ndax boole gu leen sama borom boole. ak boole gu leen seen wajur yet boole. ba ànd boobu it doon ànd boo xamante ni bii ànd bu dëgër la. waaye euh, lépp delluwaat nag. cant gépp day delluwaat nag si taalibe yi. waaw ah. seen i wax defar bi lépp lu fi taxaw rek. taalibe yi rek a ko mm. taxawal. taalibe yi rek ko def. Mm-hmm. ndax euh, li nga xam ne moom lañu ñu diggee ak sëriñ bi. Mm-hmm. la sëriñ laat doon wax naan ku jaay lëfte yaakaar njëgg loola génn sa loxo. Mm-hmm. moomatoo ko. taalibe yi dañuy mandar dañuy mandargaal saa su ne. jaayante gi nu jaayante ak sëriñ bi. dëgg gum dëggu si ñoom. ñuy wane na ñoom soxlawuñ dara bëgguñu dara lu dul sëriñ bi joxe ndigal rek ñu jëfe ko na ko sëriñ bi bëgg. loolu mhm. waxtu wu ne day feeñ ndigal mhm. lu fi sëriñ bi lu sëriñ bi jot mhm. ñii biir réew mi ak bitim réew dañ taxaw si taxawaay boo xam ne taxawaay bu mat sëkk la ki dem gis nga waa diaspora bi waaw ndeysaan si ndigal loolu leen sëriñ bi joxoon si confédération bi ñu boole seen seen seen ñu boole fédération yi nga xam ne ñoo ne si àddina bi mhm. muy fédération des Baye Fall de la diaspora mhm. seriñ bi joxe woon si ndigal mhm. mu tàmbali woon si ñeenti réew yooyu muy France ak Suisse ak Italie ak Espagne gis nga seen ànd bi ni mu rafete ñu taxawoo ko indi ñëw si sëriñ bi indi fi àddiyee ju yoo xam ne ëpp na trente-sept million euh, lépp jëm si ndigal yi nga xam ne mooy bàyyi ko kër sëñ Tuubaa di ñëw kër maam Cheikh Fall euh, sëriñ bi feddaliwaat ndigal loolu wax ni mi ngi hmm. digal fépp fu fi ab Baay Faal ne si hmm. adduna bi hmm. France Europe Afrique Asie Amérique fu fi ab Baay Faal nekk mu digle ni nanu fexe ba lëkkaloo si confédération boobu ba mu doon taxawaay boo xam ne taxawaay bu mat sëkk la. loolu nag Fall ñu ngi si ñëwaat léegi ndax foofu dafa jar a taxaw. Mm-hmm. incha allah gën si yaatal. Mm-hmm. Euh, may sëñ bi xaw a sifflé tuuti rek sëñ Mamour. tubaarkàlla moom de euh, daa mel ni defal nañu. mbokki taalibe yëpp ngi bëgg loolu de. waaw waaw defal nañu Moussa Seck kontaan lool fi ne. ñu <laughs> dëgg yàlla. Moussa Seck Baye Fall. Mm-hmm, moom moom moom moom fu mu di nekk si àdduna bi. sunu maam Cheikh Ibrahima Fall rek la nekkee di ko ziar sunu yàggal ko fi loolu te maa dëgg mu mel ni sëñ bi euh, melal nañu liggéey bi fi mu ne nii. Mm-hmm. mel na ni fi mu ne nii kon nu mu ko waxee ñu ngi si catli ndax njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp mm-hmm. ànd si ànd si ginnaaw si ñam di Fall mu sëñ Modou Mbène mm-hmm. defal ko bëgguk Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye it eh, général Omar Seck nga xamante ni ko seen bi waxee moom euh, euh, defal na noppal na noppal na taalibe yi sax laa ko mën a waxee mm-hmm. Mm-hmm. waaye ànd ak ñoom it mm-hmm. ci àlalu Cheikh Ibrahima Fall ndax gis ngeen lu mujj si wàllu finition bi di caro yeeg peinture beeg électricité bi ba si sëkk bi nga xamante ne daanaka fi mu ne nii ñu ngi si dernier réglage yi waaw mel na ni mel na ni jàmbaar la lool lool lool sama sëñ Aline Badara sëñ sañ daam dafa indi lépp ba mat sëkk daanaka mën a si ca dolli dara ndax ca tàmbali ba ba ci fi ñu toll ak mboolem ñi nga xamante ne bii ñoo taxaw temm ngir sotle sëñ Amdi Fall Modou Mbend te mooy njabootu maam Cheikh Ibra gi nga xam ne ay ay ay ak njabootam lañ. Mm-hmm. nañ nañ ko ànde woon ak sëñ Cheikh jëmm gannaaw mi fii Cheikh Ibra Fall tey ñu taxaw temm ci liggéey boobu ñu wéyal ko ci jëmmam ju tedd ji muy jàmbaar lool. xam naa dina am loo xam ne danaa ko laaj sëñ Dam waaye dafa am rek lu ma bëgg a bu tuuti rek. Mm-hmm. dafay mel ni sëñ bi daa wax ne lu jëm ci wàllum Eh, gannaaw bi bâtiment yi taxawee lu jëm ci wàllu finition bi maam karo yeeg installation bi yëpp lu ci bari fi na yemm na ndax ko xool bâtiment yi ni ñu koy wanee nii xam ne lu bari fi na yemm na day mel ne am am na lu des waaye mel na ni ci cat lañ toll fi ne eh, te mooy lépp day day duggaat ci finition ba tey rek am na lu des ci peinture ak yenn extra yu tuut yu ndaw ndawaan loolu nag mel na ni tey jii xam naa ne lu mu gàtt gàtt boo ko doon xayma mën naa la mën naa doon ab lim boo xamante ne bii njort naa ne ci jotaay bi tey comme sëriñ bi teew na te mbokki taalib yëpp ngi seetaan te biir réew mi ak bitim réew yëpp ngi jàkkaarloo noonu te am yéene am na eh, am na ñàkkul ne yéene woon nañ yàkkamtewaat fu ñu toogewaat ne ñu ngi jëm ci wàllum liggéey bii ci Mbàkke mm-hmm. bañ feeñante dara ndax ndax sëñ Mamour sax mu dama bàyyi nga wéyal waaw Euh, mooy li nga wax. Mhm. ndax euh, fi mu ne nii moom ku jëful woon ba waxtu wi. waaw mhm. yaakaar naa ne boo jëful moom boo wattandikuwul moom. <laughs> waaw loolu laay wax nii sax. <laughs> léegi léegi léegi nag. Euh, moo tax nu dégg la bu baax. li ma bëggoon. Mhm. ngir defal la gàttandu rek. ndax da ngaa bëgg a dimbali murid bu baax a baax. a bëggoon Mouhamed Régis nga officiel ñu numéro bi nga xamante ni. ku si bëgg xibaar wala nga bëgg see jëf. boo ci wootee wala nga jëf si. incha allah yàlla mën na dogal sa jëf dana dana àgg. na ko affiché bu ko defee nga daal di woyal fi nga jëf. gàttandu gàttandu nga ma sax loolu foofu laa jëmoon ngir rek li nga xam ne moo ci des ndax maam Cheikh kat mag ñi dañ daa wax ne daana wax ne lu waaye bëgg mu sax bu bàqatooy nañ ko ji dafa mel ni sëñ daam leerale fi liggéey bi toll mel na ni fi na bàqatooy na mooy ñu ngi ci cat li comme ñu ngi ci cat li nag mhm. te fi ne nii kenn ku ci nekk fas yéene nga sëriñ bi yóbbaaleel la mhm. kon yaakaar naa li des ci liggéey bi damay jàpp ne su fekkente ni bii am na lenn ci koob moo xamante ne bii tey jii su demoon rek dañuy wax ne bu fekkoon ne am na lu ñu war a jënd wala lu ñu war a mottali mu mat mm-hmm. damaa jàpp ne loolu tey jotaay bi def jotaayu Cheikh Ibra <laughs> <laughs> lépp mën na fay daje kon nag àddina ngi ñuy seetaan kon nañ tàmbali ci numéro 534 89 11 tabaarkalla loolu sax loolu sax li ma si li ma si indi ah. ab ab yokk tuuti si li nga mm-hmm. wax mm-hmm. moom mooy dafa doon ndigal mm-hmm. yaakaar naa yàggu dara sëriñ bi santoon na ma ma am ma am ma am kàddu yoo xam ne ma ma jibal ko euh, yaakaar naa si ay fan lay toll booba fekk na bi sëñ Amar Seck tàmbalee liggéey boobu muy suy bi euh, di suy euh, mur bi Euh, te dem te waxtaan si ak ñi nga xam ne ndax liggéey bi naka jekk dafa am si loxo yu mu tege woon liggéey bi dafa am ñu ko jiite mu am ay architecte yu fa nekk mu am ay entrepreneur yoo xam ne ñoo ko yor yoo xam ne ñoom la sëriñ bi boole woon ak ñoom jamonoy sëriñ Cheikh jëm ba fii mu ne ñooñee sëriñ bi soppiwu si dara ñoo yor liggéey bi mm-hmm. ñoo yor plan yi ñoo xam ni nga xam ne noonu la sëriñ bi bëggoon mu mel ni te Serigne Amdi Fall fasut yéene mhm. la Serigne Cheikh jëmm bëggoon mu mel na mhm. fasut yéene dara soppiku si mhm. noonu rek la bëgg mu wéyee mel noo ne loolaay sababu saa su ne bi sëriñ bi yabalee Omar Seck si liggéey boobu it da koo sant mu jege ñoo ñee nga xam ne ñoom ñoo yore loolee te di ko saytu te xam ko bokk na si technicien yooyee ba mboolem lu mu fa def muy karo ak électricité ak yëpp ñoom la ko àndal waaye bokk na si bi mu egsee si wàllu suy bi nga xam ne mooy mooy cat li muy finition bi Euh, bi ñu tàmbalee suy miir bi. Mm. Euh, te mu dem waxtaan seeg ñoom ñoom xamal nañu nañ ko ne ko. Mm. Euh, poto yi. Mm-hmm. ndax mur bi diggante trois mètres yu ne dafa am poto dafa ne am na ay chapeau poto yi ay chapeau yu ñu def si kaw décoration la mm-hmm. wax nañ ko ni poto yi ak ak kii chapeau yi mm. dañ ko war a peinture waaw dañ ko war a décoré ak peinture. au lieu ñu koy suy dañ koy décorer ak peinture. ci am na sax ay kii yu génn. ak yooyu génn yooyu génn si biti ko war a décorer ay fleurs. waaw yooyu génn loolu nag ba mu ko seetee. Eh, ba mu ba ñu xaymaa peinture bi la ko war a defar. Hmm. matoon na ñaari million wala lu ko ëpp. Euh, bañ defee facture boobu matoon na ñaari million wala lu ko ëpp mhm. loola kon bokk na si loo xam ne mhm. fi mu ne toll nañ si ñu mhm. war koo daal di taxawu ndax sëriñ bi dafa bëgg balaa gàmm mu àgg kon nag bu ko murid yi na nanu xam ne kon Omar Seck euh, lee muy liggéey muy suy miir ba euh, la nga xamante ne bii mooy peinture bay décorer poto yi ak chapeau yooyu si kaw loolee ñi ngi ko war a taxawu kon nag murid yi moom ndax liggéey bi moom du du àgg mukk sedd na ndax euh, li tax du àgg mooy mm-hmm. danuy xool jumaa ji rek waaw fa ko seen sëriñ Fallou bàyyi woon mm-hmm. sëñ moon musaa ko tàmbali mm-hmm. sëriñ Fallou àggale ko bi sëriñ Fallou àggale nit ñi dañoo jàppoon ni jumaa ji amul leneen lu ñu fi war a def sedd na waaye gis nañ bi Cheikh Abdoulaye Mbacké ñëwee li mu si yokk si jumaa ji bañ ko xoolee ñëpp jàpp xam ni lii dafay mel ni du lu mënoon a ñàkk te du plan bu ñu teural de. Mhm. du plan bu mu xam dañ ko defaroon bayiko fi. waye ñom mhm. Serigne Touba mo leen di no mhm. ba Serigne Abdoul Ahad Mbacké ab liggéeyam maté mu bayiko fi Cheikh Abdou Khader ñew bi Serigne saliw ñewé gis nañ liggéey bi fim ko yob lim si yokkat lepp gis nañ ko. muy lo xam dañ nan mënu to na si ci jumaaji euh serigne Hadji bara gis nañ lim fi def. <laughs> mënu fi woon ñak sëriñ léegi de lay. Ah. gis nañ ñaari soor man ko ci tok dal faaw nga feeñ gis nañ sooror yi ken dañ nan <laughs> wa da nga jumaa ja sa Touba juróomi sooror <laughs> ba sa gëna gudd maam cheikh tay dañ nan so jumaa ja sa Touba juróomi ñaari sooror lolu sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar. Hmm. moko def kon jumaa ji du ag kon da suma la déggé mooy man ma doon xool teg ci karo sax faaw ñu tek ko ah. gis nañ ko. barki dem rek. waaw nga gis ñu dindi karo yooyu di ko changé. Hmm. te dégg ci magal gi. waaw ndigal li nga xam ne joxe na ko muy parasol yi nga xam ne wax na ni mhm. da koo bëgg a song ah. ndax dégg nga Cheikh Bassirou Mbacke wax na ni mhm. sëriñ bi yitte ji mu amoon mooy mhm. ndoxum Touba fexe Lac de Guiers ñëw ndax dañu woon bu université bi àggee rek dafa bëgg a song ndox mi waaye mu wax ni eh, loola kat am na am na waxtaan wu mu def wax ak ak ak ak ak kilifa gi ba ba jàpp ni loola wax na ni moom dana ko sasoo di ko def kon nag moom Euh, liggéey boobee kon. Hmm. lañ waroon a def. Hmm. dañuy dellu si nag si jumaa ji nga xam ne man hmm. du àgg mukk mooy parasol yi. te it noonu la ko fas yéenee jàppoo. ba jumaa ji moom. Euh, ku gudd fanu da nga dem ba doo doo xam sax. Mhm. Euh, jumaa ji xaj na fa mu tàmbali woon da nga naan dangay jàpp rek ne fu ñu fa toll rek. da ngay mhm. jàpp ni lii. Mhm. du woon lu mën a ñàkk si jumaa ji dafa doon plan boo xam ne. dañ ko élaboré woon euh, bien avant. Euh, la sëñ ko defaroon tegal leen ko fi wala Cheikh Modou Moussa moo ko defaloon tegal leen ko fi. noonu nii nag la liggéey ndigali Cheikh Rafal yii lii di ñëw kër Cheikh Rafal demee ba si. complexe bii nga xam ne moom la ñuy liggéey. du àgg du jeex. lu nu fi toll. nanu xam ne. gis nga li des ci espace. diggante batiment yi ba si ba si ba si ba si biti. Mhm. fu ñu fi toll rek. Mhm. ba nu xam ni. Mhm. Cheikh Fall moom waxtu wu ko noppee liggéeyloo rek. mooy àddina tukki na. ndax li mu diggee ak sëñ mooy di ko jëfal rek. féeteeg moom rek lépp luy ndigalam mu di ko jëf. tey liy bànneexu ab taalibe. liy bànneexu ak Baay Faal. mooy dégg dégg loo xam ne dafa jógee sëñ Tuubaa ñëw kër Cheikh Fall. sëñ moo deminte daana def. dégg naa. bu ndigal masaa jógee kër sëñ Touba ñëw ndaw li ko indi balaa wax da da koy jox addi yëpp neexal ba noppi soo ko soo ko déglu ndigal la taxoon ñu tuddee woon ko nangu ndigal loolu yi nag mooy fondement mhm. yoonu kër maam Cheikh Ibrahima Fall mooy liggéey ndigal dañ koy bégee mhm. ñun suñu nooflaay mhm. mooy nekk si liggéeyal sëñ Touba nekk si ndigal nekk di ñaq mm-hmm. di ñaq ak di ñuqi mm-hmm. loola foofa la sunum nooflaay nekk nun mm-hmm. waaye sunum nooflaay du si tëdd rek di lekk ka naan wala di jullee ko woor wala di jàng ka tari sunum nooflaay mi ngi si liggéeyal sëriñ bi mooy ñaqal sëriñ bi loola la Cheikh Rafal digge woon ndax daana def bu masaa bu masaa liggéey daana liggéey ba tëdd bu tëddee ba ba jaaxaan di xaran ma sax dañ daax ni kii buy sedd di faatu te waxtu wu tëddee dal bu jógee rek nekkaat sa liggéey boobu mooy mës sa noppalu bu masaa liggéey ba naaj wi tàng mhm. la muy def jeex mu ñëw taxaw si naaj wi di tudd yàlla mhm. ñu naan xoolal rek dox <laughs> bii nga xam ne xanaa kër gi nekk nii booba Cheikh Rafal xameewul aw naaj ak um, ak ak ker mm. xameewul lu sedd ak lu tàng ndax jox gi jox boppam sëñ Tuubaa dëggugum si moom mm. moo tax moom amatul notion sens yooyu nga xam ne mm. nit ñi amoon nañ ko daawut yëg pont bu ko jam dégg ju ko xuri wala lu ko matt wala lu wala ndox mu tàng wala ndox mu sedd xameetul loolu ndax moom seyal gi mu seyal boppam jox gi jox boppam sëñ Tuubaa te muy dëgg di lu wér moo tax ba yooyu yëpp dañ si moom ba addinaam gépp mooy existence am sensu existence am moo doon liggéeyal sëñ Tuubaa rek li sëñ am di di wax ne mm-hmm. bu noppee mën a liggéeyal sëriñ bi moom soxlaatu fi dara defatu fi dara kon waxtu nañu nañu xam ne mm-hmm. yoonu kër maam Cheikh Rafal mooy yoon woo xam ne mm-hmm. chantier bu daanu beneen a ngi taxaw di ko xaar ok loolu tàmbalil sëriñ am di Faal sa njëlbéen nga xoolal bañ tàmbalee gaar ba waaw tojum gaar ba signalin ba dara tojum gaar ba <laughs> ba ñuy song loola eh. ñëpp danoo yaakaaroon ne lii de buñ si noppee mhm. eh, ñu noppi si mhm. sëriñ bi ne nañ song corniche bi si loo xam ne mhm. amul étude amul préparation amul lan parce que ñii ñi ngi koy liggéeyloo ñoom toujours ils son fin prêts ñu ngi taxaw ñoom njëkk nañ li ñuy xaar mooy ñu ne acca rek ñu exécuté bañ ko liggéeyee ba mu àgg mu mel noo xamante ne bii fi mu ne nii sax dafay mel ne nit ñaa ngi bëgg a xajamalaat liggéey boobu waaye liggéey bi sëñ Touba kenn mënu koo xajamalaat mhm. ndax waa Touba mhm. te sëñ laa doon wax ne dañoo am taw féexu dëkk Touba mhm. waaye murit fu mu mën a ne si àddina mooy ak Touba ki am taw féexu nag dëkk ak sëñ tubaa si dëkk bi nga xam ne moom la tànnoon suñ borom tànnal ko ko kooka war naa am melokaan woo xam ne wii Mhm. melokaan woo xam ne du am lenn lu muy xajamal wala lu muy yàq waaye tuddoo am murit mhm. di wut aw tur wala daraja mhm. ba noppi di gàllankoor loo xam ne ndigalu sëñ Tuubaa la loola murit bu koy def war ngaa seetaat sa bopp corniche bi biñ ko sellalee ba mu sell dindi ba mu set sëriñ bi da jekk na ba ba guddi mu taal mu dugg si oto di wër corniche bi bëgg lool biig si guddi sëriñ Abdourahmane Mbacké moom sëriñ Cheikh Mbacké ah, sëriñ Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma mi ngi may nettali keroog bi Cheikh Modou Mountakha nekkee si corniche bi di wër mbégte mu am nee na dafa bég ba woo na ko téléphone si guddi gi ne ko maa ngi nii si oto di wër corniche bi li nga xam ne ñoom la njabootu Cheikh Rafal gi liggéey. loola tey ña koy xajamal ay murit lañuy ñuy tuddoo. Hmm. mooy lenn lu ne lañ dindi woon lu bari ñu ngi koy delloo si di ko fa teg. ba ci marché Ocass. marché Ocass gis nga ni mu mel. sëriñ bi li mu digle woon marché Ocass. Hmm. kenn ku ne xam na ni. sëñ bi lu mu digle moo gën lam diglé wul njariñul njariñ li nga xam li sëñ ndax sëñ bi limuy gis liñ naan ndaw dina yegg ba ci kaw du gis mak tok fi suuf di gis lu bari sëñ bi lim nu rek lañ ko topé limnu nu ëppalee lañ ko yaakaaré muy sëñ touba lamu mëna gis ak lam mëna xam nun ko xam fam nu mëna yobbu ci ñun xamuñu fa ba dafa yobbu suñu bop bam diglé ni nañ bayyi tali te amone sabab sair bu taxone mu wax ko ndax lakk fa am yépp gis nañ ni bu bu wàllu yi ñëwee. accès bi day difficile du ñu mën a àgg du ñu mën a àgg ngir wàllu. Mhm. te lay yàqu seen alal la ñoom. Mhm. te waxtu wu yàqoo moom mu làmb si alalam. Mhm. jël jox leen dàmpe leen ko dimbalee leen ko. sëriñ wax nañ ko dimbalee defar ko. ba mu sell ba kenn ku ne mën a saytu yaxantu te doo te dara du yàqu ñu bàyyi voie principale bi ku bëgg a jàll jàll. lu bëgg a romb romb. ñiy jaay nekk ci pegg bi. fal bala ngaa loola ñu taxaw lank ne duñ ko man li ma gën a yem mooy méthode bi waa kër maam Cheikh Ibra Fall di di di utiliser. ngir mhm. ngir réussir liggéey yooyu. ndax mhm. yi nga fi wax nii yëpp. Mhm. si maamul benn desee yombul. maanaam gaar ba moom dafa jaaxaloon ku ne. ca ah, gis nga niñ ko niñ ko defaree ak méthode. maanaam coow jubul dara yëngatuwul. ba pare def ko nu ko sëriñ bi bëggee. corniche bii gis nga bañ ko yàkkalikoo ba noppi. maanaam ku ko xool gis njëriñ li mhm. gis ñi ko doon def it da ngay jàpp ni lii rek moom mooy seen métier mhm. gis nga marché occasion bañ fa jaaree mhm. donte buñ noppee nit ñi mooy li nga wax dina am ñoo xamante ne delluwaat gi kay waay waay waaye méthode bi ñuy nan lañ koy organiser soo soo soo leen tiimee nii ñuy liggéey da ngay jàpp ni ab maa ngi jégalu si kàddu gi ab désordre la fekk ni lu lu lu méthodique la lu organisé wu la daal si biir waaw man loolu nag moom xam naa ni baatin la wala saxeer la ma seexal wàll artisan loolu ba ba baatin bi sax Euh, moo ëpp sayir si xam nga xam nga xam nga yitte ak li ñu naan détermination dogu xam nga ndigalu sëñ Tuubaa waxtu wu ñëwee si kër Seera ñoom bakkan lañ siy teg waaw ndax sëriñ bi moo waxoon ne ko loo ma digal dinaa ko def waaye loo ma tere dinaa ko bàyyi loolu ba muy jib ba muy xew ay kàddu la woon yuy bàyyi ko siw làmmiñ tàbb si ab nopp la doon tax mu wér mooy bu jógee ñu matérialiser ko si ay jëf mhm. loolu laa waraloon Cheikh Rafal amutoon lenn lu mu tële si lu ko sëñ Tuubaa digal jàpp ne lu sëñ Tuubaa digle rek lu mën a nekk la quel que soit ndigal li nu mu mën a dikkee moo tax lu mu mën a laaj tey bu sëñ ne woon nañ dem si jaww ji léegi léegi nga gis ñu dem si jaww ji ndax pas-pas boobu mooy pas-pas bi nga xam ne moom moo fondement ak taalibe moo mënta ñàkk si ab taalibe loolaa waral lépp lu sëriñ bi digle nu def ko ba ñuy jumaa ji fàttalikul jumaa ji rek mag ñi fu ñu daa yenoo xeer yi ndokk ndokk lañ ko daa yenoo di ko indi mm-hmm. wax nañ ni daanañ gas suuf di ko jal ba mm-hmm. ki nga xam ne moo jiite liggéey bi ne leen xaar leen ba ba suuf si wàññi ko ñu soga ñu ngeen soga tibbaat mm-hmm. mag ñi daa dem góor ak jigéen kenn ku ne di yenu da ngay gis ñoo xam ne dañ daa wax ne def li nga man ngóor a niwu si ngóor a mi ngi si def loo mënul loo mënul wax ne def li nga man boo defee li nga man yem si yàgg ñëpp yem ngóor mi ngi si def loo mënul kon da nga daa gis koo xam ne dinañ dinañ jàppoo aw aw xeer mhm. nga xam ne lu man ñett wala ñeenti ponk la koy yëkkati fexe ba nga téeñu mu tegal la ko mhm. boo boo déparee ndokk Touba rek jum si fi jumaa ji rek nga koy yenn koo si lépp daal mu ngi si pas-pas lépp mu ngi si pas-pas rek mhm. mooy lu la si fekk baax na ndax addina ak alaxira la la la la lan wax kenn ku ne ba nga jébbal jébbal naa la sama bopp àddina ak alaxira kon la Serigne Touba waxoon nag rasulullahi sallallahu ne ko euh, euh, rewoo dëxëra nii yaati wa ilma xidmati war waxuma jusmaani wa kulli bila mhm. jox jox naa la sama lépp mhm. ndax jaayante dafa yàgg diggante mhm. saaba yi ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ne gis na ko waaw anfusahum wa amwaaluhum loolu bakkan deret ak alal bi ñuy dem Badar dañ leen ne woon xare bi ku ci dee àjjana nga jëm bokk na si stratégie de guerre nga ñeme sa ennemi nga ñeme sa ennemi parce que boo ñemee sa ennemi ki ngay xeexal même tey jii boo doon xeex ak nit ci mbedd mi sax boo ko gënee ñeme yow gën koo sóoru amaana yow yaay ëpp avantage loolaa daloon jullit yi ñoom détermination bi ñu amoon si na ñoom àddina signifié wul dara ñoom li am sens mooy dem àjjana ñeen leen ko si faatu dem àjjana fi jaas yi gën a jaxasoo lañ doon dugg hmm. donc loolu bokk na si stratégie bi nga xam ne. Hmm. contribuer na ci victoire bi nga xam ne moom la ñu am. loolu mooy moo feeñ ci kër maam Cheikh Fall ndigal lu jógee kër Sëñ Tuubaa su accès seetuñu ba xam naka la ñuy def ba réaliser li am solo mooy li Sëñ Tuubaa bëgg daanu ko def. li sëñ bëgg faaw ma li sëñ bëgg danañ ko def détermination boobu ngay am nag dafay am loolu lu si sëñ bi di feeñal ndax sëñ bi da si daal di feeñal mbóot wala baatinu ki nga xam ne moo lay liggéeyloo xoolal gaar ba kenn gaañuwu si ay immeuble ñu di ko daaneel nit ñi nekk si suufu immeuble yi gisoo kenn ku si gaañ parce que ñi doon dugg xam nañ li ñuy def wante Cheikh Rafal jaral na leen ku si deewoo nit la sëñ Abdou la sëñ la sëñ kii waxoon sëñ Bass Abdou Khadir ne ko liggéeyu war mu yi buñ si dee sax buñ nu jaalee bu nu jaale sëñ sëñ sëñ sëñ euh, sëñ jiini Fall moo ko waxoon sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ waaw waaw ndax ndax lanoo jaayanteeg sëriñ bi mm. addina ak alaxira sunu sunu sunu bakkan sunu yëngatu sunu dal sunu am am sunu lépp lañ jaayanteeg sëñ Tuubaa kon ku ku joxe sa bopp sa jëmm kon li aju si jëmm ji taxul nuy wax ndax kenn jébbal naa la sama bopp àddina ak alaxira kooku jëmmam la joxe jëmm ji nag si la xel mi ne si la xol bi ne si la euh, am am bi ne si la lépp ne kon yow moomatoo dara li nga moom lépp joxe nga ko mm-hmm. kan moo ko moom ki nga ko jox kooku nag moo sañ na kon jëfandikoo sa nam ko soobee si li nga xamante ni mooy jëmm ji. moom mooy li Cheikh Rafal waxoon sëñ Touba ne ko féetal ak yàlla yow mi ko xam. mu féetal yow man mi la xam. est-ce naa diggante sëñ Touba ak yàlla lu nit gàtt gàttu dégg xam ne lu lu ko waroon diggam ak suñu borom matal na ko. ndax jaayante naa moom jaayanteeg rasulullah yi dem liggéeyali ko liggéey boo xam ne bii ban ko ko nataalee da doon ay tiis ak i mettit te appal sakk luñ ko woon ab app fu muy yem ndax wax nañ ni sëñ Tuubaa am na dem na ba ñu ne ko fi mu ne nii nattu yi jeex na léegi pay gee si des waaye loolu kenn waxu ko ko woon ba muy dem dañ ne ko woon bis bu yàlla sàkk des na la teg si ay nattu loo xam ne dina la fàtteloo nattub démb ba te waxtu woo rëccoo mbaa nga saalit mbaa nga yokkat contrat bi yaa ko dagg ndax sëñ Tuubaa moo waxoon rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne ko roogi moom sakkuma ko bay xam lu mu attan ak lu mu attanu waaye li ma mën a xam mooy ak lu nu ma mën a yan bu ko sama roogi attanee sama jëm dékku na ko kon sëñ Tuubaa détermination boobu mu demee ma rasulullah yi loolu moo feeñaat moom la Cheikh Rafal donnu rek <laughs> détermination boobu la Cheikh Rafal donnu digganteem ak sëñ Tuubaa moo tax moom it dane roogi sakku ko bay xam lu mu attan ak lu mu attanu waaye lu ko sëñ Tuubaa digal dana ko def moom la sëñ am di di wax ne lu lu ma sëñ Muntaxa digal danaa ko def loolu la sëñ Amdi Fall moo du benn di wax mm-hmm. ndigal lu jógee sëñ Muntaxa ñëw fii des na ko def mm-hmm. loolu moo waral mm-hmm. euh, ñu ñu ñu stratégie boobu ñu ñu ñu di ko réussir saa su ndax kenn du bàyyi dara bu ñuy bu ñuy liggéey dañuy jël yépp ndax mbooloo moo xam ne mbooloo xamoo ñu toll te ñoom ñëpp bokk détermination ñoom ñëpp a bokk pas-pas tey bu fekkoon ni aw doj mu mën a kal mu mën a fakkastal nit sax mi ngi fii ki ko jëkk romb moo koy jël àndal ko du fakkastal kenn loolu liggéey boobu euh, cohésion boobu mu mel ne euh, su mbëgg suukar yi wala kii du ñuy liggéey noonu ñu organisé ah. segam ñooñu la ko suñ borom defal ba nu organisé wu ñi war a indi lekk ak ñi war a séddale yëpp voilà <laughs> loolu segam ñoom la ko suñu borom defal asiment doomu aadama yi nga xam ne suñu borom nee na nu mu ñoo ko gënal rawatina ñi nga xam ne ñoo yaakaar ñooy ñooy xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam rawatina njabootu sëñ Tuubaa gi rawatina nag tànneef yi nga xam ne eh, yonent bi daa tànn sëñ Tuubaa tànn Cheikh Rafal ñëw tànn si biir tànneef yooyu muy njabootu maam Cheikh Rafal muy ay Baye Fall loolu moo waral ñuy réussir loola boo gisee gaar ba bañ si noppee da ngay gis ne lii mënutoon a ñàkk boo fa demee da nga naan lu extraordinaire lii kenn mësu koo gis chantier la boo xamante ni bii su fekkoon ni tey jii dañ ko dañ ko dañ ko doon dañ ko doon euh, def ay appel d'offre di ko jox ay société wala ay entreprise ñu di ko def mm-hmm. day doon loo xam ne si ay weer lañ koy ah, étaler mm-hmm. te dina dina dina mobiliser fonds yu bari matériel yu bari mm-hmm. dina ko mobiliser ak sécurité bu bari loolu lépp nag am fa nun danoo xëy nu war nu li ñu war a dindi ñu song ko dind ko ngir jëm sëñ Bamba ñii di yenu xeer yi di dajale ñii di fab di tuuri ñii di maasale ba ba ëllëg ba nga fa jaaree day mel ni fii dara musu fee ne moo tax bañ si jógee sëñ sëñ sëñ Muntaxa def ni waaw sëñ am ni moonu mbedd mm. dëkk baa ngoog dëkk muy wàllu worma yi ba ci màggal gi moo si mujj mel na ni sëriñ bi ak eh, eh, eh, mm-hmm. équipe bi mu bi mu bi mu bi mu jox ndigal li mm-hmm. ngir ñuy saytu worma yi mm-hmm. mel na ni ñu ngi si def liggéey boo am solo bu wér a wér xam nga si euh, worma ji sax dama ci ñew mhm. waye dama bëgg a waat ben euh, soññente rek si sama euh man talib bu xébu bi mhm. sama digënté ak sama jëwri yi nga xam sama kilifa yi nga xane wala sama mbokk taalibe yi nekk Touba ñu mhm. xam ni sëñ Muntaha bëggam gi dañ ko dañ ci wara japp jàpp wuñ ko si de suñ bop si ci jàppale ndax li li li sëñ bi la wax ne ci alxuraan ne wa kulluhum aatihi yawmal xiyaamati fardan wax na ni kenn ku ne da nga wéet ak sa borom mhm. ba yaakaar ne moom dong nga sàkk moom yow dong la sàkkoon si àddina mhm. nun wéetaay woowee kun fa yaakaar noonu sëñ tubaa rek lañ yaakaar a gis képp moom lañ yaakaar a gis sëñ tubaa mhm. rek moom lañ yaakaar a gis ki nu yaakaar a gis nag fii si àdduna moom moo nuy digal dina tere bu nu fàttalikoo dëkk tubaa bii damay dégg si waxtaani sëñ Bilane ma wax ne sëñ Touba day bi mu fiy ne ñett lañ xamoon mu ñor ko amatum ñeenteel. Mm-hmm. bu njëkk bi mooy mooy arxuraan wax na ni arxuraan moom ba mu xamee ni yàlla suñu borom wax na ni keroog yomal xiyaam kenn ku ne da nga génne sa pàggatéefu àddina jóor di teg jinne ak malaaka teg seen bët nee na keroog la jël arxuraan def ko muy pàggatéefam moom mu jóge si yàlla jëm si rasulullaay te jàddu fenn wax ne bi si dolli ko mooy ñi ko topp yàlla tax mm-hmm. loola gis nañ ko nee na comme si mës a wéetal won na la si sa bop won la si bopam lo xamni bugo di sa morom deug la lolo waral tay kenn ku ne di xëcc fi barab bu ne won diw bu ne sëñ diw tay ne sëñ diw gis nañ cheikh si fune kenn ku ne fa nga tibbe ci sëñ touba japp nga ni suñ la newon tay ji bayil sab cër jël cërub ke nga ni dedet sama a gënal te ñom ñep ke loxo bi rek mo leen tibbal nee bi ko ñettel moy touba gi nee na Touba bi ko Serigne tuubaa sancee mhm. juróom-ñaari at la fi def dellusiwaatu fi ba ni mu wujjee boromam waaye nee na diiru li muy li muy li muy li muy ne si àll bi mi ngi tagg tuubaa mi ngi woy tuubaa ku mu jur fi la la la digal nga dëkk fi mhm. lu mu am fi la ko dël mhm. kon Touba bi mu demee ba war a jaxasoog boromam ndigal lim joxe bi mu demee ba war a soppi ndigal lim joxe ndax soppi soppi soppi ko lañ koy tudde rek ndax suñ ah wax na ni mom du koy faatu lool mom kenn ku ne xam na gis jang nañ ko gis nañ ko si bindi, yi kafaaniyal baax yi sarmada wa bi baaxee sur ahmada lool ku ko jang ku koy firi non kep nga ko meuna a hmm waaw lim digal Cheikh mohamed Moussa wax ko ne bu ngeen gis bu len gis mukk sama tray bi, ba ngeen japp ne won ko fiy joge la digal ko ne ko na nga ma yobbu tuba digal ko ne ko jumaa ji nangeen am yitte yi taxawal ko ndax bu ngeen ko taxawalul suñ borom dana wàcce yeneen mi def ñu taxaw kon ku fonke noonu ab dëkk digle jumaa jumaa ji digle nu andi ko fi digle ak njabootam dëkk fi woo taalibe yi ne ku bëgg a raw na nga ñëw Cheikh Ablaat waxoon ne ku fi am sa pujub néeg mooy sa seere ëllëg yomal xiyaam sa àjjana loolu yow nga am taw tawféex googee ku toll ne du Modou xaa nga xam ni fi mu war a jaar yëpp dafaa jaar ñi mu war a topp ñëpp mu topp leen ngërëm ñi mu war a laq lépp mu làq ko di sëñ Tuubaa mu sotti digle waaye ñu taxaw ñu am ñu taxaw ne duñu ko def boo demee marché Ocass hmm. ñu ngi ko ñu nga ña nga fawaat nga dem démb rek ñu ngi may wax marché maam Seynabou Ndiaye ba demoon nañ ba def fa ay gri del siwaat nañ ba si kër Cheikh Amar ba si kaw tali nga nga ñëw si corniche bi mhm. nga gis am ñuy lagg-laggal te da ngay gis ñoo xam ne mhm. dañu koy def di te ay kilifa la ñuy doon wala ñoo xam ne dañuy bootu si kilifa mhm. léeg-léeg nga soññ nit sax kilifa wala di la di la di la di la di la menacé mbaamu di la di la ndax di la woo di la woon sañ-sañ <laughs> naan daam ku ne seen ginnaaw daan daam ku ne seen ginnaaw <laughs> te loolu lépp Mhm. sëñ bi bi muy si warma ji nga xam ne moom nga wax mhm. bi bi digle warma ji dafa Dubai Baye Fall yi tu siara Fall mhm. Wai warma ji ku ku yaakaar Bamba si nga bokk loola communication bu bunu masa defrek def rek bokk na si ku yaakaar sëñ Touba rek da nga war ngaa seh Seex munta ka warma i tuba Touba ak warma may njabootu sëñ Touba gi te ñàkk gee sàmm dina am yu bari lu mu jur dem rek mangi ngi dégg ay waxtaan yu bari si presse bi ko wax ñu dem ba am ñoo xam ne dañuy dem ba àgg si di jël léegi nag ay kàddu di ko jëmale si sëñ tubaa mbaa ñu di ko jëmale si njabootu sëñ tubaa gi tey di di ñoo xamante ne si maanaam amul lenn fenn fun mën a sukkandiku ba war a def loolee loolee lépp mooy boo waccee boo waccee li nga moom keneen dina ko jël di ko di ko di ko jëfandikoo si anam boo xamante ne waaw li nu moom sëñ tubaa defal leen ko ba addinay tukki ku bokk ci njabootu seigne touba bay kujang ñu fi ndono yi ku jang alcorane yaay jitu hmm. bàyyi fi ndono yi ku upp xam-xam yaay jiitu hmm. bàyyiwuñu fi ndono yi ku upp alal yaay jitu de xam nga ndono lu fi bayil hmm. ku bokk ci njabootu seigne touba ma nga bokk ci njabootu ku seigne touba defar ya fi ne ya fi ne deug la de <laughs> ah, ku bokk ci seigne touba ba ku ci ku seigne touba defar yaay jitu Cheikh Modou Moussa Mbacké bi muy doon seigne touba ko la ngi fi te terewul mu doon sëñ Tuubaa du xam ay jiitu mhm. kilifa gune mhm. am nga taalibe yoo xam ne ñoo la ëpp xam-xam kilifa goo fi gis am nga taalibe yoo xam ne ñoo la ñoo la sutum njàng ñoo la ëpp alal <laughs> wala ñoo la ëpp doole wala ñoo la ñoo la wet yu ne mhm. da nga am taalibe boo xamante ni bii sax yow boo tawatee nga dem si moom mu tifli la nga wér waaye moom la mu soxla mooy sukk fi sa kanam ne la la muy topp toppul lële lii moo valable doon dereti sëñ tubaa wala wala doon dereti ku sëñ tubaa defar sëñ Abdou waxoon na ni sëñ tubaa li muy def si ni toppees ko nee na bu ko defoon ci garab nit ñi dëkk war garab ga te duñ fa jóg te nee na loolu julli ñaar ràkk ko gën a yomb waxoon na ko loola loola loolu mooy liggéeyu sëñ tubaa ku mënta weddi loolu dindi ko sànni lii sëñ tubaa bëgg mënoo si dara ñu bari nag pexe mi ñu nekk mooy bëgg weddi loolu pexe mi ñu ne mooy bari boo soolee ñi ñi weddee ko jéem a def yëf yëpp. Mm. ay xam-xam la ñuy xëccu. waaw ay xam-xam la xëccu. Mm. waaye gis nga gis nga gis nga euh, sëñ laat doo xam ne ne murit bu solu dàllam waa koy dem. Mm-hmm. nee na ku ko neex mu def sangam. Mm-hmm. daal ne ba si man mii ku mu neex ma di sab sang. Mm-hmm. waaye murit bu ñu teg si jaat jëmale yëmal am nee ko ko ne am nga benen sang bu du Serigne Touba su mënoon a jóg du bu yet jassi lay fab dal sa kaw Serigne Touba rek la ñu yaakaar sunu yëngut ak suñu dal sunu dund ak suñu dee sunu am ak suñu ñak Serigne Touba rek lañ yaakar suñu tay ak sunu ginnaw bakkat ko xamni ki nak Serigne Touba rek nga yaakar gannaaw Serigne Touba rek lañ yaakar nak war na delo wat nak Serigne Touba lam mom lañ digge won ak mom moy lum nu digal nu def ko lum nu nu bay ko wala bu nu teree te bawunu nu xamni ni matadik doomu adama tee nu waye lanku nu fi seigne touba waye waye waaye jëm ci di weddi li nga xamni mom la fi seigne touba bayyi ndax seigne touba dafa liggey ba sun borom jox ko malakani mm-hmm. dunya wa akhra samad lolu moko massa wax si adina mm-hmm. waxuñu ab amku, amuko ab xutbu saman amuko mm-hmm. ab waliyu amuko yalla moma len na ma rek ko massa wax te kenn weddu ko parce que dafa def preuve nit ñepp gis dan ko fay jëlee l'islam jaral ko bakkanam lislaam jaral ko aw yaramam lislaam jaral ko muy toggoo mbooleem fitna ngir mën a teggil jaam ñi euh, nattu yoo xamante ni si waroon naa ñëw si ñoom bi muy dem bu ko neexoon du dem bu doon bu doon jaamu yàlla képp la fa mu waroon a àgg àgg na fa ndax dégg nga li ko li ko rasul lay waxoon bari yaa ñu toll fii nga toll ma feeñoo leen nii ma la feeñoo ñu bañatee bokku ci ñu bañatee bëgg dara lu bokk si mbooloo mi ma andal muy wa ahlu badrin waye lay tax nu bokku sa suñu leen ko téggé dañuy muju yaqulé dañ ne ko kenn ko yenoogul yeen bi ba àggale ko amagul si àddina sele ne ko yeen bi la xamut lu muy doon ndax roogi sakku ko bay xam lu mu atane ak lu mu attanut waye lima mëna xam moy lu ma mëna yeen bu ko sama roogi atane sama jom dëkku nako señ sëñ démé jom mm-hmm. dugal nañ ko si né bo xamanteni ni bi wax nañ ni ab seng la mm-hmm ñu taal ab sébb ci ginnaw seng bi bi tangor wi xewé metti mu xaw melni lu seug sun borom tek ko si ay natt ne ko ag nga dama la wax ni lu waratoo daw ay natt bo gisé natt da nga wara dox jëm ci natt ba suñ tuwaa agul na si bu gisé natt du ko moytu du ko njoy da da wara waxu dajé ak mom walis si mu diko daw seug gam seug sun borom tek ko ci ay natt ma touwé moy yëkëti mbum ma far jël yaram bi dar ko si seng ba mu diko lak kooku kooku sëñ bi ku lislaam jaral loolu war nañ koo fay leneen ku ku ku dër bu ñuul jaral loolu ku diine jaral loolu ku yàlla ak rasulullah sallallahu alayhi jaral loolu kooku njukkal la nu warloog moom mooy ñu jël ko teg ko sa kaw nag moo tax bi mu ñëwee ñu jël ñu ne ko yow sëñ tu Cheikh Rafal ne sëñ Tuubaa du ko nuy roy ndax ku ko roy da ngay déeg ku jéem roy sëñ Tuubaa booy génn Mbakke bari demal taw ba nga xamne mo ñëk dal si koom ba tégué tankam ba taw bobé gutlet do yoyé bu dalé sa kaw rek nga bayyi yow ah, waxutuma laak lam dajel jéewal ba ndar ba dakar ba nim démé demee ba ñëw ñu yobbu ko gannaar ak ceyeen ba nim mu ñaaré njaareem hmm. ku ko jaral hmm. demal hmm. doko doko do do doo doo doo am do do do do agali mukk sedina kon ku ñuy liggéeyal seigne touba du ku ñuy roy seigne touba des koy yaakar seigne touba des koy liggéeyal. ci ñaari principe. Mhm. ci Baye Fall de fofu rek lañ ne. fofu kep lañ ne. Mhm. yaakar seigne Bamba. moy mhm. bëgg ko ba yamali wuñ ko dara. ndax yaakar ji mi ngi aju mi ngi mi ngi sukkandiku si bëgg guñ bëgg sëñ Tuubaa. ak nang ko liggey rek te yalla tax. ci damay wax tousoon ne ak bëgg ci la lepp ne. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Liko dal weesuut bëgg. bu ko sun borom bëgg rek. di. tànnal ko wajur tànnal ko ab dëkk tànnal ko yoon wu mu jaar jë jël ko def ko muy ngeen ji mindeef ne ko ku la gëmut ab yéefar la loolu fu ñu ko mën a wéer bu doon yàlla day amul xol ñu ne yàlla ab xolam mu rasulullah sallallahu alayhi la ko jox te sëriñ ab laa wax na ni sëñ Touba nee na wax na ni li muy liggéey rasulullah yi mm-hmm. li mu koy tagg li mu koy topp li mu koy roy dara dolli ko si lu bëgg jëm rasulullah ji señ sëñ Tuubaa soxlawutoon dara si rasulullah lu bëgg mom ji rek la bëggoon mm-hmm. <laughs> jëmmam ji rek motax Cheikh Rafal waxon señ Bamba ne ko mm-hmm. bëgguma aljana mm-hmm. ragaluma sawara yow rek la bëgg yow rek la bëgg <laughs> bam mu deere dem ma ne ko ko jéggi da nga fekk ma ci bi da nga dem sawara bam ñëw fa baram bi jaar la dajale suuf sa mako ko egg si biir sëñ Tuubaa nag Ibra Fall xanaa waxu na li wax mu ne wax nañ mako waye dama la top ngir bëgg aljana top ma la ngir ragal sawara man sa jëmm ji rekk laa bëgg dama laa topp ngir bëgg la rek sëñ tubaa du ku nuy roy sëñ tubaa ku nuy yaakaar la sëñ tubaa ku nuy liggéeyal la mhm. ñaari principe yooyu mooy principe yi ab murit war am mooy li dal waa kër maam Cheikh Rafal soxlawuñ dara <laughs> bu fekkoon ni mhm. yi ñu fi bàyyil mhm. bu fekkoon ni am na leneen lu gënoon loolu kon Cheikh Rafal bàyyil ñu fi ndono loolu ci jullee gën a yomb lii nuy def Wara gëna yomb toggi ndogu hmm. tok di wér da ka jang mo gëna yomb sax di liggéey sëñ bamba di tassaw yaram bis bu sak. sàkk bu fekkone cheikh Fall lu yomb la bëgg hmm. kon mu bayil nu fi lolu hmm. waye kàddoom ya nga xamne ne léegi nga wax ko xaw ma gëna gëna liggéey gën jang manu. gën jang joxe gën julli joxe gën julli maandoo gën maandoo gën koor bay Cheikh na Cheikh Ibrahima lolu xamne lolu nak mo dajé ci bay Fall yi amul benn bay Fall bu deugal te te te te te te jikko yooyu nekkul fi yow. dëgg la benn soxla la Baye Fall yi am. mooy mooy ndigal bu tey jii waxtu wii may wax ak yow. bu ñu yëkkati woon baatum ndigal ne sëriñ bi nee na bu fajaree Baye Fall yëpp na leen fekk Touba. kon kon kon waruwaay du des si réew mi. bu dee Dakar de bi kenn du kenn du fi xaj. bi la bi sëñ bi wootee bi si Sikurulaay yi. waaw. Mhm. ndax sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha dafa xam Cheikh Rafal da koo yëg xam ko. tollu way bam fa tollu li fim tollu ci si Cheikh Rafal da ngay dem ba yow Baye fal nga nan man sax man day jaaxle man ndax man mu ne ndax Cheikh sëñ sëñ mo mo jitu si Baye fal <laughs> bis bu mujj bi mu jëm woote daa fajar ne dama nam dama nam ba sikkar damaa nam Cheikh dama nam wa keur mam Cheikh Rafal nam namm sikkar bu ngone bu ngone nañ ñew nañ ñew nañ ñew nañ ci <laughs> ah muy muy fane ñu ñew tuddu yalla ba guddi mu ne mu ne ba ñuy ñaan mu ne ah naan naa de waaye mandiwu ma guux naa de waaye mandiwu ma suba nañ ko defaat suba nañ ko defaat loolu moo xam ne ma day continuer wala sikrullah akbaru kàddu gu nit di génne si làmmiñam baatub laa ilaha illallah moo ko gën a màgg seen kon suñu taxaw bu mënee ci lay naan waaw bu mënee ci lay naan si lay naan ba mandi si moo ko waxal boppam si lay naan ba mandi wax na fi kàddu ni Baye Fall bu dëggal moo ma sama jëmm ji waaw wax na ko ñaari waaw ah, mu ngi ci média yi waaw waaw waxoon na ko waaw mhm. Cheikh Issa Dieng mhm. sama mag ju baax ji la daa wooye Cheikh Ibra Cheikh Fall di ko wooye sama rakk ju baax ji mhm. mar Cheikh Issa Dieng tolluwaay ba mu toll woon fu fa am murid di tolloo am mun faa toll bu ñuy joxe exemple si si murid sa addex mën na ñoo tudd seexi Issa Dieng fu sa ci diggam ak sëñ Touba. xool ni mu fonke woon maam Cheikh Rafal. xool ni mu fonke woon ak njabootug maam Cheikh Rafal. <laughs> te dégg nga li mu wax si Cheikh Rafal dégg nga li mu wax si Cheikh Rafal. Mm-hmm. kon loolu ay ay tolluwaay la yoo xam ne. Mm-hmm. Baye Fall yi foofa lañ ne. mooy ndigal lu sëriñ bi joxe. Mm-hmm. waaw fas yéene ko yéene jëfe ni ko sëriñ bëgge gis nga gaar ba na mel. gis nga euh, gis nga marché occas nañ ko defoon. gis nga nañ def nañ defoon corniche bi. ba jëm war may biñ ci accès. Mhm. gis nga gis nga gis nga li sëriñ bi waxee damaa bëgg. Mhm. na Cheikh Rafaal yore woon worma ji. Mhm. noonu laa bëgg njabootu Cheikh Rafaal yore ma wormay Touba mooy wormay Touba ak njabootu sëñ Touba gi. nga xamante ne fi mu ne nii lépp a ngi dox. lépp a ngi dox liggéeyu Mbàkke baa ngi dox. waaw liggéeyu worma bi mu ngi dox. chantier nah. sarna sax ba Mbacke kadior ba Mbacke kadior ba baax a baax njabootu Serigne babakar Mbow ñaanal Serigne babakar ndaw suñu borom dolli ko ngërëm lool dinaa si ñëw léegi ah, mu soog si Arafat fa la bëgg nga tabbi fa la bëgg nga tabbi waaw waaw bo ci tabbe warma ji kon ma ma mujjé warma ji ndax warma ji dafa am lo xamne dama ko ci bëgg wax euh ci murid yi nga xamne ah kañ bismillah ñoom la Serigne bi tan bismillah ñu dem ci terrain bi di ñuy dem ci terrain bi mm-hmm. dama sëñ bi keroog daf ma woo séeréel ma mm-hmm. ak cant gum sant ak ak ak mbégte ak ngërëm lu mu gërëm murit yi nga xam ne ñooy laxasaayu mm-hmm. te donte kenn gisu leen kenn xàmmeewu leen ñu wéet ak seen borom ak sëñ Touba ak maam Cheikh Rafal waaye nekk si terrain bi di jëfal sëñ Touba li nga xam ne mooy bëgg bëggam ki muy ñoo xam ne ay jàmbaar lañ mm-hmm. ñiy laxasaayu di dem di jànkoonteeg jafe-jafe yi ñu leen di saaga di leen xas di leen wax lu ban di leen dóor mhm. Cheikh Rafal jaral leen mhm. ñu laxasaayu nekk ci terrain bi mhm. te lépp lu ñu leen digal ñu nangu ko jëfe na leen ko sëñ bi digale sëñ bi ne ma na nga leen jottali ay baati cant ak ngërëm mate nañ ko loola dafa kawe ndax képp kuy liggéey dangaa bëgg a dégg jaajëf te amuñu waxtu guddeeg bëccëg amuñu waxtu waxtu wuñ leen wooyee ñu jóg waxtu woo leen wooyee ñu jóg waxtu foo ne ne acca ñu ne acca kon ñooñu may seere fii cant gu leen sëriñ bi sant ñun sunu cant du sa doon dara ndax ñoom sëriñ bi bu leen santee sunu cant du sa dara waaye ñi ngi si waar woowu lañuy ñuy doxit mhm. weesuwul mhm. li ma doon wax léegi si Touba ak li sëñ Touba daj ci dëkk bii mhm. ak dëkk bi li mu jaral sëñ Touba nga gis soxna su soxna yoo xam ne dañu fiy nekk sol yu bon sol loo xam ne day daan ràcc si saw yaram wala sol lu yaraax wala sol loo xam ne da nga koo xar ba say pooj di feeñ wala nga wala nga nga nga sol loo xam ne sa dënn ngi feeñ nga jël lu mel ni ay mees wala ay greffage yokk ko si sa bopp te murit yi bu ñuy jóge feneen di ñëw Touba sol lu jot muur ba ne man lañ ndax xam ni tuubaa dëkk bu ñuy defaru la yow nga dëkk biir Touba sax si loolu ba nëpp ne doo ko bàyyi te waxtu wuñ la jàppee indi la sa Baay Faal ga ay nit di ka di wax aka intervention yu du jeex <laughs> ñooñu kenn wul leen intervention nga gis xamne fa nu fanu tekki wuñ fa won dara démb ak tay ba ñewé Touba lañ doon dara dik samp fi am fi kër seigne Touba jox leen kër ñu am kër am fu nu dekk seigne Touba jox leen moyen ñu liggéey di xey ci marché mbaa ñuy xey ci entreprise ñuy xey ci euh, atelier yi ba mëna am lu nu fajale seen bopp seen soxla defuñu lenn lu dul bu nu xëyee ñu ngi ci football bi ñii bu nu xëyee ñu ngi ci jaay ab ay wut ay ay ay yàmbaake drogue ki ñii ñu ngi ci yu bon yoo xamante ni si mhm. buñ la ko waxee danga nga naan déedéet te ñun ci biir war ma ji mhm. dafa am loo xam ne sëriñ bi daf na ko digaloon mhm. ndax mënoon nañ lu nu jàpp ñu publier ko ñëpp gis ko waaye war ma ji ñu warloog sëñ Tuubaa daa bokk si am na loo xam ne waxtu bu fa gisee dañuy xam ne ñi ko fi indi dañ fee bokkut rek buñ ko fi bokkoon duñ ko fi indi loola nag ñun jomb na noo génne di ko wane mm-hmm. waaye ñaw ñawteef ya ñuy dajeel ña ngi koy saafara lu ne gis nañ ko fi lu ne lu ne gis nañ ko fi te ku bëgg xam boo ñëwee sa kër maam Cheikh Rafal ga nu won la nga xam nga gis nga xam nga xam ni kon nit ñi àgg nañ fi dayoo delo ñu ko seigne touba ñen si ñen ñi mu len di delo gannaaw ndax seigne touba mom li nan dara jam kawe na te dootu soufey bu mukk wax na ku bëgg a suufeel yaay suufe waaye dara jam dootu soufey kon képp ko xamanteni ni ki yaangi ci si leneen mi ngi melni nga jaaxaan di sànni doj rek saan boko sanni ci sa kaw la jëm ci waat dara jaru ko dara jaru ko kon ma ngi soñu sama bop di soñi murit yi mhm. ñu delluwaat si loolu di sante wa warma yi di sante jëwriñ yi ñu seen kanam ba secrétariat sunu wajur yiko jité ma len di sante serigne Assane serigne serigne serigne serigne serigne mam maam Cheikh sëñ Moutalaam serigne sakour mhm. hein serigne mam Cheikh Khady Fayam Serif Assane serigne Assane Fall Baye ndam Fall serigne Ousseynou ñom ñep ñi ngi len di sante serigne ali serigne Aliou Bada Darou Khafour serigne serigne sëñ Abdoulahat ñom ñep ñi ngi len di sante di leen gërëm di ñaanal di ñaanal ñi nga xane yit ay njabootu Cheikh Fall lañ te jité liggey bi ñoo ni seen kanam ñoom sëñ ñoom ñoom sëñ Basak ñoom sëñ Moustapha ak ñoom sëñ Mouhamed ñoom ñi nga xam ne seen seen oddoot ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kanam jiite groupe yi di ànd ak ñoom di dem ci terrain bi waaye di sant mbooloo mi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ñuy dem te lu jar a def ñu def ko ci ab yar ak teggin akuk dal akuk ràññi nag mhm, ràññi akuk mhm. ràññi ndax sëñ bi daa waxoon dafa am lu mu déggoon mhm. mooy nañ amuk ràññ kon ñoom ñi ngi sàmmoonteeg ràññ ki ma dikkaat nag si jàmbaar ji nga doon tudd di Serigne Babacar Mbow di murit boo xamante ni bii livre yi ma indi mhm. moo ko bind kii moom la kii moom la njëkk a bind mhm. mu ngi tudd la lumière de l'éternel la lumière de l'éternel rasool kii mhm. Serigne Babacar ko Serigne Babacar Mbow moo ko bind ndeysaan sëñ Babacar Mbow leeral ci sëñ Babacar Mbow di jàmbaar góor yàlla yàlla na suñu borom dolli ngërëm yàlla suñu borom dolli ko ngërëm amiin baax dafa liggéeyal sëriñ bi si mhm. ngëm ak pas-pas ba si dernier soufflam wallaahi dëgg la sëriñ bi wone si moom mandarga mu rëy mu am solo gis nga bi muy bi muy nekk Paris sëñ bi yónn na ma fa ma dem fa seeti ko si hôpital ba mu ne woon maa ko fa njëkk a fekk keroog bi ma ne tëll si saal bi dane bërit wax soxna aïssa jox ma ñaari enveloppe mu jox ko ñaari enveloppe mu gën ne ma li sëñ bee ko mom joxal mako ko bi addiya ta muy waxtaan ak man joxna ma addi sëriñ bi te boobu mi ngi ci lalu hôpital ba mu ba te ak demam lepp ci ndigal ndax ba bi muy dem dane bu sëñ bi joxewul ndigal du dem du dem dëgg la ba mu jekkee ba ba jambar ni day ñibisi day ñibisi seen seen bi bu ci joxee ndigal kéro bi ko sëñ bi ne pexé mu ngeen man def leen ko ba mu yàlla dogal ñaari fan ñetti fan lañ ci teg lépp sotti ñu di dugg avion jëm si. avant ba laataa nuy wàcce aéroport sëñ Babacar. wàcc na yàlla dogal bi mu wàccee directement lañu def Mbàkke Kajoor. fa ko sëriñ bi yóbboon di ko fa liggéeyal. bërëb boobee nga xam ne fa la yoonu murit sosoo. Mm-hmm. bërëb boobu nga xam ne fa la seex Rafal sukk sukkoon bëti wóomam ya mhm. ne sëñ Tuubaa jébbal naa la sama bopp àddina ak àllaaxira foofee nga xam ne fa la waxoon sëñ Tuubaa ne ko mhm. yàlla si yàlla laa bëgg nga àggale ma fa sëñ Tuubaa ne ko kooku nga tudd xaw ma fu mu ne bu fa ma xawoon fu mu ne noo fekk mu ne ko damaa topp tànkam bu mu sof yow kon foofee la foofee la Cheikh Rafal doge tànkub yàlla ba sofi sëñ Tuubaa liggéey na ko sëriñ bi yabal ko mhm. mu nekk fa di ko di ko taxaw liggéey ko liggéey bu mucc ayib sëriñ Cheikh jëmb ànd ko moom sëñ mu demin Fall ba ci serigne Cheikh dem ba si sëriñ Amdi Fall Modou ben taxaw diko liggey ak pass pass bu ma ceuk waye di liggeyal sëñ bi ci dimension bo xamanteni bi ñun ñepp war nañ fa ag parce que mbirum sëñ bi dafa yemut ci rew mi mbirum sëñ bi yemut ci senegal mbirum sëñ bi yemut ci lak wolof mbirum sëñ bi dafa wër aduna tay ku ku liir kii la lumière de l'éternel di nga xam kan moy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim rasoul l'amour du divin dans le verbe. étranger étranger l'amour divin dans le verbe du prophète. Mhm. <laughs> Li, euh, Serigne Babacar Mbow. Yep, armata moko moko moko moko moko moko ko édité. Euh, Cheikh Ibrahim Fall la lumière de la sainte piété. Mhm. la lumière de la sainte piété Moi, baaw leeruk ku celle qui, ku sell loolu lu yéeme la. Ah. Hmm? xam ak xam-xam bu xam-xam euh, lii ku ko bëgg a ku ko ku ko ku bëgg a xam dimension sëñ Babacar. Hmm. wala nga bëgg xam dara si yoon wi. Hmm. te te te mënoo jàng téere yi. fexeel ba am téere yi xoolal kii la Hein, la mystique Baïfal. Je veux comprendre la mystique Baïfal. comprendre la mystique Baïfal. En tout cas, waa Alburax. Kouk Alburax. waaw <laughs> yaakaar naa ngeen fa il y a Cheikh. li, li, la sept six. Euh, la noblesse spirituelle de l'âme. y mm-hmm. hmm? mungo, mm-hmm. le genre de l'amour. Ah. Bi, yaakaar euh, tamit. mi ngi ne euh, Laura euh, mu ngoog Laura de la femme dans le verbe divin yii euh, yii sëñ Babacar moo ko bind déjà ñaar ñeent juróom-ñaari juróom-ñaari ouvrage ngi nii parmi dix fukk yo xamne ne na ak yeneen yi nga xamne ne na ko te genn te ak njabotam ñi ngi taxaw ci te te te sëñ Mamour so gisee jëmum manam li do ko foggé ci mo talibé gi da koy nëbb xam nga xam nga sëñ sëñ Badara nit nit su humbleul dara lu mu wax rek du dëgg mhm. humilité mhm. humilité moy moy caractériser grandeur nit nit nature deug deug deug moy mhm. da ngay xam lu bari waaye buñ la xoolee dañuy jàpp ne xamoo dara da ngay jàpp ne xamoo man lu bari mel na ku mënul dara parce que waxtu woo jàppee ni xam nga lépp mm-hmm. yow yaa gën a néew xam-xam nit ñi dañuy xam di la romb xam-xam ket la boo xam ne da koy def de manière perpétuelle bis bu yàlla sakk da nga xam dara nga xam dara dolli ko mm-hmm. waaye waxtu woo jàngee ba yàgg nga jàpp ni fii xam naa lépp léegi mm-hmm. nit ñi dañ lay romb di dem ndax xam-xam amul fu muy taxaw mm-hmm. bis bu yàlla sàkk am na loo war a xam ndax yàlla ay kii maanaam saa su ne la koy wàcc moom nag moo tax ki ëpp xam-xam mooy ki jàpp ni xamul dara ki ëpp xam-xam mooy ki nga xam ne saa su ne moom jàpp na ni xamugul xamugul dara ndax loolu loolu mm-hmm. loolu loolu faal daguma la mais mm-hmm. da nga daan da nga daan moom sax sëñ Maodo da nga daan toog moom mm-hmm. mais da wax ak moom sax waaye day yéem ah seetal ma lii rek. maanaam di di di yàkkamtiku. li ngay wax nga jox ko kuy dolli ko te fekk maanaam. nga jox ko maanaam ñëpp waaw rendez-vous di <laughs> donner et recevoir. ñu jàngal yamu yamu la fi. ya ñi jàng ba yëy këyit. Ah. yamul yamul egguñu ko sax si wér. wallaahi dëgg la barke sëñ Tuubaa. Ah. dimension dimension culturelle mm-hmm. dimension culturelle ah. fi mu toll. Mm-hmm. ñi ñi jang ci réew mi sax wuñ ko mom dal Fall xam nga ni ñuy defam bo buñ dinañ ko sakku ndigal kon jëf na ba wacc ah, ñu duggal ko ci biir jëfam jëf na ba wacc ñi eh, kéro bi mu wàccee aéroport mm-hmm. booba génn gut aéroport señ señ euh señ señ señ cheikhuna woo ma mm-hmm. booba daa fekk sama ma ne si yoon jëm tool ya mm-hmm. maa ngi tolloog tubaab ko fekk yoon bi ñu ñëw yépp ñi ngi wax ma ak ñoom mu ne ah, sëñ daam mu ne am na am na lu xew de daa mel ne sëñ bi de mu ne ah mu ne waaw ma ne ko xaaral. Mhm. ma jokkoo kilifaam. ñu mhm. ma jokkoo sëriñ bi. Mhm. ma ba xamal ko sëñ bi. mu waan ma ne ma moom am lu mu dénkaane woon. am na lu mu dénkaane woon ak njabootam de. am dénkaane woon de mooy bu sañoon. bu dee am na si ndigal. na yóbbu denc ko Mbàkke Kajoor. sëriñ ne loolaay ba loolaay loolaay ndigal la. daal ne daal ne ma wax leen ne leen. Mhm. nañ def directement Mbacke Kajoor bu ñu jàdd fenn noonu lañ ko defal. sëriñ bi daal ne ma si guddi gi bala ngaa tëdd. Mhm. ku bokk si kër Cheikh Rafal na ko yëg. te wax leen ni ñoom ñëpp nañ dem taxawu ko. ko moo tax ñëpp maa si xëy dem taxaw. moo tax Mbacke Kajoor foofu nu ko denc. Mhm. liggéeyam boobu. Mhm. foofu nu ko denc sëñ sëñ Babacar. Mhm. fo loolu rek symbole la boo xamante ni bii. maam mhm. ku seex Fall nangul. nangul ab liggéey. moom moom daal Fall euh, sàkkul ñu si sëriñ bi émission spéciale rek. si sëriñ Babacar bu du émission spéciale ay émission spéciale. di ziar bu baax soxna soxna yaa Aïcha. Aïcha euh, mu mu mu jàmbaar yi. suñu borom yàggal ko fi lool. di ziar sëriñ Cheikhouna tey ñaan suñu borom woyofal ko yenn wi. sëñ Fall ñu ngi koy ziar bu baax ak euh, sëñ Maam Samba. ak soxna maam Cheikh ak soxna Jamila Yane Ngoné macha allah yàlla sàmm mboolem nag leen defar rek mm-hmm. yàlla leen defar xam nga soxna Aïcha boo ko gisee soxna Aïcha ku ku gëme noonu sëñ Babacar mm-hmm. ku ko doyloo noonu da koo gëm doyloo ko ba da jàpp ni da koo ragal fekk na du ak ragal mm-hmm. ak gëm la da koo gëm yaakaar noonu nag te fees dell noonu nag la la la njabootam gi mel. yëg nga ni soxna Aïcha wajuram mu jigéen. Euh, ñibbisi na mi ngi mi ngi mi ngi ah, Mbàkke Kajoor. <laughs> Ah, ah. na waaw si tawféex gi ñu am ñoom. jóge na France ñëw jóge na France. na këram. dam mhm. amoon dem naa këram. Mhm. ñibbisi na ñibbisi na Mbàkke Kajoor. fekk si soxna Aïcha xoolal njabootam gii nga xam ne ni mu leen ña yare moo tax keroog sëñ bi dafa wax ni. Mhm. ku yaakaaroon sëñ Babacar. jox naa la ndigal nga topp sëñ Cheikh Ahmad mm. te daal na leen liggéey bi bu mu laal suuf fi ko sëñ Babacar bàyyi na ngeen ko fi tàmbalee jëm kaw ñu ngi koy def baax a baax yàlla na suñu borom kàttanal leen mm. uh, Fall xam naa ni moom dañuy waajal émission spéciale si ñoom mm. xam naa dañuy uh, tàggoo rek mm-hmm. tàggoo gu dul dog ah. Fall sant na ah. ah. uh, xam naa fi ñuy tàggoo nag mm-hmm. mooy kon wane ni mm-hmm. liggéey bu rëy bi di liggéeyu Mbàkke bi général Omar Seck ak alali maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom moom ñu ngi si cat la kon nag képp koo xamante ni nii mm-hmm. la ngay jëf sëñ Mamour yaa ngi ko yaa ngi bëgg a jëf ku jëfagul 77 500 78 534 89 11 moom la ñu mm-hmm. affiché noonu mm-hmm. ku am loo siy jëf daal waaw nañ nañ nañ ko nañ ko gaaw jëf ndax xam ni sëriñ bi ni nga ko waxee sànq nee na bëgg na say jot balaa ñu jëm si gàmmu gi ci fukki fan ak juróom ci tey incha allah astaghfirullah fukki fan laay wax sax si tey moo dox suñu diggante gàmmu kon bu ñu jugee fii wala guddi gi lu waay mën jëm suba. ma mhm. ko gaaw def. Mm-hmm. ndax xam naa ne Seydina Omar Seck moom mm-hmm. ak waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall gépp xaaruñu kenn te <laughs> li sëriñ bi bëgg li sëriñ bi bëgg sëñ bi xam naa ni foofu rek mm-hmm. la ñuy bëgg kàddu yooyu tàggoo laataa loolu bu ñu jógee si gàmmu gi maa doon wax sànq di màggal gi nga xamante ni moom lañ jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall bisu ngërëm li te sëriñ Basirou Fall al Quran yàlla suñu borom dolli ngërëm do do amoon tawféex di ko taxaw tiwaawoon ba ba ni si alaaji baara joxee ndigal nu indi ko fii ci Baye Fall ga nga xamante ni doon na bis boo xamante ni moom lañ ni mooy bisu ma ma Cheikh Ibrahima bu doon am bis. Mhm. màggalu maam Cheikh Ibrahima Fall ngi nii mooy mhm. bis bi ko Serigne Touba. Ah. gërëm maanaam gërëmee ah, nga xamante ni tey jii. Mhm. Baye Fall ga boo ñëwee xam ni fii ab màggal dëgg la. kon nu mu koy waaj moom it fukki fan ak juróom-ñaar la woon. ci weeru gàmm ren muy tombeek nag. Mm-hmm. niñ naan 5 septembre mi ni mm-hmm. toll mu ngi ak ben fanu gamu magal mm-hmm. gi mu ngi ak 21 septembre di julli géej kon mom lay tombeel ren xamna ni ñom ñi ngi wacc sax ngir ñew <laughs> fi ci lam faal ñu jappalé len ci walu communication bi ak sëñ ci Diop sëñ Ngunda jàmbaar lañ doon di ziar bu baax baax nak señ Ngunda am nañ ci ndigal nak ah est-ce que di ziar bu baax señ Ngunda xalifa Serigne Bassirou Fall al Quran di ko ziar bu baax baax di ziar señ basirou Fall Cokke mi nga xamanteni xam ngeen ni Euh, mo jité comité d'organisation bi atu jot mu koy taxaw taxaway bu am solo mm. euh, ñom seigne Modou Fall ñu ngi leen di ziar bu baax ak njabot gi rek mm. waaye di ziar bu baax baax euh, mm. kon seigne Cheikh Thiocké mi nga xamanteni moy khalifa serigne Mbacke Fall di ñaan suñu borom yàggal ko fi lol te mande ko ak mboolem njabot gi rek kon di dinañ ci delu ci ndax ñu ngi wacc sax chaque jour Lam Fall seni pah partenaire lañ bok ñew and ak ñom ci magal gi te ñu ngi koy wacc bu baax baax kon di wax mboolem mbokki Baye Fall yi nañ ko wacc bu baax baax Fall yaram kàddu yooyu tàggoo euh, balaa ñuy sunu baay taala sunu baay taala gay day moom it yónnee na àddiyam waaw moom de moom moom moom moom moom nee na moom mi ngi siyaar général baax di ko jaajëfal di siyaar sëñ daam ci waxtaan wi am solo yi nee mm. na yéene moom moom mu tàbbi ci biir liggéey bi ñu ngi koy siyaar baax moom sëñ Moussa sëñ Abdou Khadir di santaat bu baax si yàlla bara sëñ daam moom tey lim ñu indil mm. suñu xol sedd na bu baax ndax di dañ koo namoon euh, tey daanaka buñ ko déggee daal moom mooy soññee la boo xamante ne bii defe naa tey jii moom ñi nekk Touba. te sëriñ bi santoon leen. mu mel ne ndigal la ba tey jii na ko sëñ bi bëgg defewuñ ko ni. fi ne seen xel wërta wërta daal fi ñu toll nii ndax faaw ñu def bëgg sëñ bi. mel ne daal fi ñu toll nii. li sëñ bi bëgg daal dañoo taxaw temm ngir na duñ ko def. te loolu nag teguñ ko fenn. benn mooy marché occas bi la ca sëñ bi santaane woon. ñu bëri dellusiwaat nañ. corniche bi gaa yi lalaat nañ. kon nag day mel ne ba ñuy ñu ci bëri ba ñuy joxe sëñ dama jàpp ne daal loo ma digal ma def ja dañoo waroon na sëñ bi loo ma digal su ma ko mën a def ah, foofu la loolu moo am de comme dellusiwaat nañ te sëñ bi santoon na ñu jóg loo ma digal su ma ko mën def ah, ah. ko doon mooy tàggoo bi mhm. mooy mooy miin miin miin sëriñ bi ki nga ab serigne soko miné miinee. da nga da da da ngay mel ne ku te boko ko doto ko jëriñoo. Cheikh Ibrahima ne na beut ak xef ñoo dëkk. waaw né beut dugg xef. ñi ngi ñi ngi ñi ngi sante bu baax. di sante mbollem ñi nga xam ñoo ñu doon tewlu hmm. di sante sant signal sante sant Mamour. Hmm. Eh, sëñ Naamar sek li nga wax légui rek. lu ko jox dina ko def liggéeyam sëñ Cheikh Rafal. alhamdullah waaw koo xamante ni kii su su amee oto jaay def si liggéey Seere Faal mhm. su amee kër jaay def si liggéey Seere Faal mhm. bu amee lal sax jéggénn jaay def si liggéey Seere Faal mhm. lu ko waa jox dana ko si defal loolu waa ñim ko seqal di alali Seere Faal xam nañ ko kon nag liggéey boobu daa war a àgg fii ak fukki fan si ndigalu sëriñ bi si ndigalu sëriñ bi nag fukki fan loolu loolu ku dem si internet di nga gis kaddu yoo xam ne ji jox joxe naa ko te kaddu yooyu si ndigalu sëriñ bi laa ko defoon mu ngi deel xaar suba rek war naa sotti waaw alali maam Cheikh a yéen a ngi may dégg numéro baa ngi alali maam Cheikh Rafal yéen a ngi may dégg waaw murit yaa ngi may dégg mm-hmm. loolu li nga xam ne mooy àggale liggéey boobu mm-hmm. ñu ngi sàkk bu subaa mu àgg mu so lépp sotti ñu leen di sant di leen gërëm di ñaan li nu sëriñ bi digal mm-hmm. yàlla nan ko man te jëfe ko nam ko bëgg ñaanal sëriñ am di moo du mbenda yàlla suñu borom yàggal ak dundam te wéral ay cëram yàlla mën na lu ne yàlla ko suñu borom def ndax moom yitteem yëpp muy liggéeyal sëriñ Tuubaa alhamdulilah yàlla nañu dugal si jibaam nag yóbbaale nu si liggéey boobu yi mhm. di ñaanal Cheikh Modou Muntaxa mhm. yàlla suñu borom téen nu fanam bi ak wéram bi di ñaanal sëñ Basiru Mbàkke moom sëñ Abdou Xaadir mhm. di jàmbaar lool moo xamante ni kii li fi ko liggéey bi àgg foofu mu ne su ko xayma ku ko jegee da ko xam jàmbaar lool di ñaanal murit yëpp nag alhamdulilah ñi Cheikh Rafal bokkaloon kër sëñ Touba yëpp alhamdulilah ñu leen di siyaare leen ay nawle ay sang lañ leen def. ci alhamdulilah di siyaare te di leen ñaanal. jërëjëf sama borom defal ñu ngërëm. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Mamour. waaw di sant bu baax sëñ Aline Badara. Mm. di siyaar maam Serigne Samb. moom sëñ Abdou sama tur sëñ Sow moom nee na ngi doon topp jotaay bi. mi ngi lay bëgg bu baax maam Serigne. Mm-hmm. waaw ñu ngi lay siyaar bu baax di siyaar mbokki taalib yëpp di santaat bu baax a baax sëñ Aline Badara. di siyaaraat bu baax fédération maam Cheikh Ibrahima Fall jëwriñ ji Serigne Salim Ndiaye ko sëñ daam waxee rek muy ay ñuy ay jàmbaar lool confédération bi yëpp itam sëñ Manga Silla jawrin Balde ñoom ñëpp ñu leen di siyaar sëñ Aline Badara Diop ak mbokki taalibe yëpp di leen jaajëfal bu baax nag di santaat bu baax waa daayira Maam Seydou Ndiaye itam njiital soxna magu di jàmbaar lool xam naa sax ñoom bi nag bëgg nga ah, ah, ah, la. ah kay incha allah xam nga la sëriñ bi moo ne. Mm-hmm. confédération des Baye Fall de de la diaspora nga xam ne ñeent daayira yi ñoo tàmbalee gum. ñoo tàmbali waaye ñëpp. ñëpp ci lañ moom diaspora bi moom mooy biti réew gépp rek. bitim réew kon ñu fàttali ne daal Italie France Amérique sax ñu ngi ñoo tàmbaleegul Amérique ñoom ña sax fi mu ne di waaj ngir ñëw. waaw ñi fi mu ne nii nag Italie si ne Espagne Suisse. ak ak ak ak France. kon nañ xam ni fu Baye Fall nekk ndigalu mhm. Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbende Fall la. Mhm. Euh, Serigne euh, Dame Fall Soda mi nga xam ne moo yor kàddoom gis ngeen jottali na ko. Mhm. ni fu Baye Fall nekk. nañu boole seen doole. même bu France amee fédération. Italie am fédération nañ créé confédération boo xamante ni moom moo leen di. regroupé ñoom ñëpp fu ñu mën di nekk nag kon si diaspora bi. ngir ànd di yëkkatee ndoo di dóorew ndoo xam ni booloo mooy doole. loolu nag kon ndigalu Serigne bi la. te danañ si ñëw yeneen jotaay sëñ Mamour kon mu gën a yaatu yaatu lool incha allahu rabbi mm-hmm. di uh, beral ziar nag sëñ Mamour. Mm-hmm. sunu waaje sëriñ Thierno Diagne maire Sindia nu ngi koy ziar te ñaan sunu borom kattanal ko mm-hmm. dooleel ko te uh, musal ko si ay ay ay ay ndoge gi ti xat-xat te defal ko tawféex gu woo yaatoo yaat moom da di bàyyi faal bëgg Cheikh Ibra lool di ziar bu baax a baax ndeysaan wallaay di ziar bu baax soxna sën soxna seen wàdd mi nga xamante ni moom la ko sunu borom booleel ak mbooleem njaboot gi rek mhm. sunu borom dool leen taw feexu baax a baax soxna Faatu Jum mhm. euh, ca moom it moom lu mu dégg si ndigal yi di ko def saa su nu ngi koy ziar bu baax a baax a baax mhm. sunu gars yi foofu ca France ñu ngi ñuy topp di ñu euh, ñoom sëñ waaw sëñ sëñ sëñ mu ñu waaj bisu maam Seydou Ndiaye incha allah <laughs> incha allah di ziar bu baax a baax sëñ Cheikh Kassé euh, ñoom sëñ Sidi Baara Sare fàttewuñ leen ñoom suma gars yi foofu rek bàyyi ñu kenn ñoom Abdou Karim fàttewuñ leen ñu ngi leen di ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla ak mboolem mbokk yi nga xamante ñu ngi doon topp sëñ Modou gisee ñu ngi ko gis mu ngi yëglu ñu ngi koy a a a mhm. mhm. mhm. jotaayam di euh, sëriñ euh, Dame Soda Fall mu baax mi nga xamante ni depuis 2014 ba léegi nu ngi ko ànd di ñaan sunu borom euh, gën koo dëgëral ndax moom day sagu bàyyi faal yi di sagu yoon wi wax dëgg yàlla boo gisee ni muy jottale ndigal yi si ni muy yóbboo ndigal yi wala ni muy jottale ndigal yi si kanam Cheikh Mouhamadou Mountakha diggantam ak sëñ Bass sëñ Abdou Khadir diggantam ak njabootu eh, sëñ la a eh, yàggal la fi lool kanamu sëriñ bi ñu bokk fay yàgg eh, kon mbir yii di liggéeyu stade bi mu ngi mhm, noonu mhm. liggéeyu institut islamique bi mhm. sëñ bi yàkkamte na ko lool lu si waaye di jëf kon na si gaaw lool bu ko defee ñu mën ko jébbal sëriñ bi laataa gàmmu gi mhm. fekk fukki fan moo des suñu diggante gàmm gi mhm. jaajëfal bu baax mbokk yi nga xamante ne ñoo ñu doon euh, jàppale si émission bi bàyyi ma wax jaaj jaajëfal bu baax sëñ Abdou Sow Mouhamed Thiam si wàllub réalisation bi mhm. waaye di beral euh, ziar bu baax a baax euh, borom kër gi sëñ Aline Thioune ak mboolem personnel bi nga xamante ne ñoo koy jàppale mbooleem seen rek di ñaan suñu borom defal leen tawféex bu baax baax te defal ñu ko waaxiru daawaanaan alhamdulilahi rabbil alamin fan amin amin